am mbégte ak kontaante ci teewaat fii ci rajo Assalaamy FM 99 point 0 seen rajo télévision di ziar bu baax sëriñ Sidi Muxtaar euh, di ziar baax sëriñ Muntaxa Mbakke xalifa général de Mouride di ka ñaanal sunu borom mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ziar bu baax xalifa général di baay Fall ak xalifa sëriñ Cheikh sëriñ Touba ak kilifa yi dëkk bi ñëpp di ziar bu baax sëriñ seex Ndigal Fall mi nga xamante ne këram mi ngi nii dend rajo bi lool di kilifa diine am solo lool maa a baax. di ziar bu baax mbokk jullit yi ñëpp seen tur ak seen sant di ziar bu baax sunu président regroupement président Idika di ko ziar bu baax di ko ñaanal sunu borom pëgg boxam yëkkati ko delloo ko ci sagoom di ziar bu baax sunu président fédération taxi regroupement fédération taxi de Touba Serigne paap Seck di kontaan lool nag di ko ziar bu baax ndax am mbégte ne tey ji sax moom la ñu euh, seqal émission bi mooy sunu invité tey jàkkaarloog moom pour bëgg a lu bare bari ci Euh, wàllum taxim Touba urbain taxi urbain biir dëkk bi muy kilifa ci transport yëlif lu bare bare ci transport ci réew mi doon kilifa fii ci transport kilifa transport fii ci dëkk bi di Touba ñu am mbégte lool ci jàkkaarloog moom tey ci émission bi di ziare bu baax a baax sunu waa gaas waa arrondissement Ndam ci njiital Baye Basirou Diaw ak Baye ak euh, waa membre ya fa nekk yëpp bàyyiwuñ kenn ñëpp ñu ngi leen di ziare di leen baalu àq bu baax a baax di ziare bu baax sëriñ Alé Mangane mi nga émission bi te tey mu dem Jolof ziare ja xam naa ne mu ngi bàyyi xel émission bu baax a baax ñu ngi ziare bu baax di daal suñu président Pape Seck di am mbégte lool bisimilah Serigne Pape nga def sa présentation. jërëjëf di leen jaara di jaar nag bu baax sunu sëriñ sunu yaakaar teeg ëllëg sëriñ Moustapha Mbacke moom Cheikh Blaat ñu ngi koy nuyu ko jaara jaar itam monsieur le maire de la commune bu Touba nuyu ak ziar mboolem secteur transport yépp rawatina ñi nga xam ne ñooy suñu mbokki taximaan yi xam naa bu ñu jëlee nuyoo bi jox sëriñ Dame Lo mi nga xam ne mooy suñu vice président dal ñu itam ci émission bi nga xam ne émission bu ñu yàgg bëgg ñëw la waaye xëy na tey la ko suñu boroom dogal nuyu nag kilifa rajo bi di Serigne Fallou Galas la wax dëgg yàlla dama am mbégte ak contentement bu rëy bi ma ñëwee fii xool bërëb bi melokaan bi nga xam ne moom la mel ma am ci mbégte am ci contentement di ñaan rek suñu boroom gën koo dimbali gën koo jàppale ba lépp lu mu yéenee liggéeyal maam Cheikh Anta Mbàkke borom gaawaan yéene ko liggéeyal sëñ Tuubaa Seexal Xadiim sunu borom dimbali ko kàttanal ko boo mu yeggale ko ci ni mu ko bëggee nuyu itam personnel bi fi nekk yépp ñu ngi leen di nuyu di leen jaara di leen jaajëfal di nuyu itam suñu xarit sëñ Ali Mangaan mi nga xam ne jataay bi moo sëñ Daam Lo ñoo ko doon séq euh, tey mu wuute ndax nekk ci yeneen yitte fële ci Jolof kon ñoo koy nuyu di jaar auditeur ak auditrice yépp téléspectateurs yi ñëpp daal ñu ngi leen di nuyu di leen jaare fas yéene déglu nag sëñ Dame ci ay laajam fas yéene itam suñu kemtilaay kàttan ñu wax fi loo xam ne dina nekk njariñal secteur transport yi yëpp rawatina secteur transport taxi bu Touba ndax kon ni ko waxee yàlla dogal na muy président du conseil national des conducteurs du Sénégal muy kuréel boo xam ne dafa lëkkale ay chauffeurs partout dans les régions jiite itam fédération taxi de Touba waaye nekk itam vice président commission des transport ci mairie bu Touba yàlla dogal itam sëñ Abdou Lahad Ka lépp lu jëm ci wàllu taxi mu dénk ñu ko ci wàllu sectoriel itam ñu jiite kuréel bi nga xam ne mooy COSER comité d' organisation pour la sécurité du Grand Magal de Touba foofu sax la ñuy jaar nuyu bu baax euh, monsieur le ministre Malick Ndiaye waaye nuyu itam ay collaborateurs yëpp ku ci mel ni Mouhamadou Moustapha Guèye euh, wala Jojo Ndiaye. nuy itam euh, DG ANASER bu bees bi di ko dalal jàmm di Atoumane euh, Sy ñoo ngi koy dalal jàmm ci ANASER euh, di ñaan yàlla may ko itam réussite waaye may ko membre gouvernement bi yépp sëñ daam ko ñu ngi lay jaar waat bu baax te di la jaajëfal di am itam mbëgte ak contentement bu rëy ci invitation bi nga xam ne defal nga nu ko di la sant di la gërëm aussi sa taxawaay ci secteur bi waaye sa taxawaay itam ci li ñu bokk muy fédération taxi ndax maan nga waaye itam nga imaam nga itam ci ci secteur u taxi ñoo ngi lay jaajëf lu baax xanaa jeexale sama nuyoo sama ziare suñu wayjur suñu sëriñ sëriñ Basiru Lo ñoo ngi koy ziar bu baax di ñaan suñu borom guddal aw fanam lool te jàppandalal ko ngërëmal sëriñ Tubaa Seex al Xadim ak ngërëmal maam yaag waajur ya nuyu nag sama doom euh, waaye di sama sëriñ itam soxna Faama Naar ñoo ngi koy nuyu baax euh, di nuyu waa kër gi yëpp daal bàyyiwuñ kenn ñu ngi ziare ñëpp suñu daam jërëjëf sëriñ Pape jërëjëf sëriñ Pape ñu am contentement bu baax a baax ci dalal ndax euh, dafa doon loo xam ne ni nga ko yàggee bëgg noonu lañ ko yàggee bëgg ah. te bu dee defal nga comme ni ma ko bëggee ndax fi ne ni ñun amuñu lu dul màggalu Touba mm-hmm. ñun taalibe Serigne Touba jullit yëpp sax mm. te ñu gis nga ci liggéey liggéey bu mucc ayib mm-hmm. muy ndaje mi nga ñuy woo ñun ñëpp képp ku nekk ci wàllum transport mm-hmm. muy nga jiite secteur boobu ñu wax COGER nga jiite tamit CNCS muy conseil national du conducteur du Sénégal ñu am contentement bu baax ci dalal la fii nga doonaat conseil ci commune bi ba tey jiitee doon vice président commission des transport fii ci commune de Touba kon li liñ soxlaa laajte fii ci émission bi di jotaay transport kooku yaakaar am nañ yaakaar trop ci ak leeral mm-hmm. ndax euh, màggalu Touba gi mi ngi jub si yaakaar naa jaarale ngeen seen CLD yi ngeen xam ne yi ci ëpp solo mhm. te COJER am na liggéey bu rëy boo xamante ni mi ngi ko war a def di vingt quatre ci mois bi ñu nekk nii mhm. mu waral laaj ab woote ak it ak liggéey bu rëy rëy boo xam ne mi ngi lay xaar mhm. ndax partout au Sénégal ñëpp ñu ngi la bàyyi xel ba ci ministre bi xam naa na bàyyi na la ci xel ah, ñun ñi tamit ñu fa fas yéene ko ànd ak yow daanaka moo waral ñu am ñu profité pour dalal la ci ak it nga laalal ñu tuuti ci wàllum carte autorisation de circulaire yi nga xam ne yéen ko seq ci commune bi. Mhm. parce que fi ne ni man tey dalalu ma la comme président fédération parce que man maa sa vice président kon man maa fi taxaw fédération taxi de Touba. Mhm. mais yow moom dama laa dalal comme monsieur le maire. Mhm. pour nga leeral taximan ak les chauffeurs euh, seen carte yi ni muy demee ak ñi nga xam ne kumpa meen ngi seen diggante. loolu ñu bëggoon nañ ci lu leer lu leer bu baax a baax a baax ci wàllum carte yi président Pape sëvër mhm. si nga xam ne jot nañoo jot seen i ak ñu jotagul seeni i carte ak ñu déposé gul ak ñi nga xamante ni waxuñ leen lu leer ba tax ñu mën koo gëm mhm. loolu bëgg nañ nga indi ñu sax ay leer bu baax ak ndax yéen a ngi am résultat mi ngi am yuy génn wala génnagul jërëjëf euh, Serigne daam laaj nga laaj bu am solo lool waaw xam nga Serigne Dame boo fàttalikoo saa su ne dama koy wax daayira bi nga xam ne mooy maj ma noori ni mhm. te Serigne Mouhamadou Mountakha jox ñu tur wi. Mm-hmm. dafa am sabab. Mm-hmm. sabab bi nag ñëpp xam nañ ne mooy jamono bi nga xamee ne commissaire mu Modou Mbacké Diagne mi ngi fi. jot ndigal ci ay kilifa. Mm-hmm. ñu wax ne lépp li nga xam ne mooy taxi rim. maanaam taxi yi nga xam ne amuñu ay kayit yu valable mënuñu génn dëkk bi. dañ leen di jële ci dëkk bi. loolu itam dafa am sabab. ndax Euh, dañoo am benn rapport boo xam ne dañ koo defoon ci wàllu secteur u taxi mm-hmm. lépp li nga xam ne ñaaw téef la boo xam ne amoon na ci taxi mm-hmm. loolu lañu ñu dëxañoon ci ay kayit mm-hmm. jébbal ko kilifa yi dëkk bi ñu gis na lii kat nekk na loo xam ne ginnaaw mi ngi am ci secteuru taxi bu tuubaa te ñu seetlu dina itam mi ngi amee ci oto yi nga xam ne amul kayit kon oto yooyu dañ leen fi war a jëlee lu ci mel ni fiir nit daw fiir nit mu faaru sax am na fi kooku daw jël yi fi jàmbur guddi ak bëccëg ak it di dugal ci dëkk bi loo xam ne boroom dëkk bi da ko fiy tere mu nekk daal ay ñaawteef yu bare bare yoo xam ne bi ñu ko seetee seetaan naa vidéo bi muy itam lu wér péng ndax muy prison bu Mbàkke rawatina prison bu Jurbel ba fii may waxe nii boo fa demoon tey fekk fa ñu bare bare ñoo xam ne chauffeur lanu ay chauffeur taxi itam lañu bañ fay dem itam ay chauffeur lañu tey bi ñu leen di jàpp lépp li nga xam ne moom la ñuy fekk ci taximan bu mel ni sëñ daamloo moom lañ fekk te moom muy permis de conduire bu valable oto bi it bi ñu ko seetee lépp lu ñu fekk ci oto sëñ moom lañ fi fekk muy droit de stationnement ak lampe bi nga xam ne mooy tax mu mën a taxi assurance ak carte grise kon kooku mënoo wax ne du taximan kon bi nga xamee ne loolu am na ba yàlla dogal ndigal jóge ci euh, kilifa yi ñu sant ko Mourou Mbacke Diagne yàlla dogal itam ñu am ci ndimbal lu rëy lu bàyyi koo ci Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na suñu borom yokk ko fee yàggal lool te may ko wér. amiin bintu jugee nag ñu ne ñun ñi nga xam ne ñoo yëngatu ki taxi te amul lu dul taxi sagowuñu lu dul taxi suñu lépp itam ci taxi lañ ko yaakaar. Mm-hmm. faw nag ñu amaat ay taxawaay loolu nag ñu la ciy sant. Mm-hmm. ndax amul dara lu ma ci doon def waxtaanu ma ci ak yow. réeroon ci guddi réewoon ba bëccëg. fi mu toll nii sax sama waa kër ni may bàyyi xel. tey euh, boo demoon ci kër gi boo laajtee dinañ la ko wax. sama xale yi ak xale yi ma dëkkal ñu ndaw ñi bu ñu fo ci téléphone allo sëñ Daam Lo allo sëñ <laughs> ndax gis nañ communication yu bëri nga maa koy def naan suñ dàmbur suñ dàmbur yàlla seede na ko sama dëkkandoo yi ma jàkkaarloo sax uh-huh. bu ñuy foo ci téléphone xale yi tuuti yi uh-huh. loolu la ñuy foyee <laughs> kon mbir la moo xam ne lépp ñoo ko ànd de début au fin bi loolu amee nag ñu ne nañ jug uh-huh. Euh, yàlla dogal itam ma nekk conseil municipal comme ni nga ko waxee. Mm-hmm. nekk vice président commission des transports. maire dénk ma lépp lu jëm ci taxi. Mm-hmm. te nit ku baax ko ne nag bu ñu ko dénkee lenn li rawatina kilifa dénk ko. Mm-hmm. li ñu ko dénk itam di lu di ñëpp bokk. faw mu def te yitte. ca laa la tàlle la loxo ak ñeneen ñu mel ni yow. yeneen ngeen jug laxasaayu. ñu ànd di dox ak wax. ba yàlla dogal euh, Abdoul Ahad Ka président gares yi yëpp ak fédération yi boo ko fàttaliku boobu ñaari fédération moo fi nekk yàlla dogal waxtaan wa sottiwul ñu toogaat ba mu yàgg ñu wootewaat beneen woote boo xam ne ñu ngi ko def ci teewaayu euh, Moustapha Dieng mi nga xam ne mooy daaf bu mairie bu Touba directeur administratif et financier bi loolu amee nag ñu toog ak moom ci jamono boo xam ne moom mi ngi doog a ñëw bees ci dëkk bi am yéene liggéeyal tax ci dëkk bi am yéene liggéey ci dëkk bi liggéey boo xam ne ñëpp dañ ci teg seen bët ci la ñu wax nu moom li ko indi ci dëkk bi la mu ci dëkk bi ak yéene bi mu am ci taxi bi jóge fi nga xam ne fi la nekk dem fu kawe kawe kawe bi loolu amee nag la am ci suñu biir ay président garasu taxi yoo xam ne dañ leen délégué woon yëkkati kàddu ci kanam Moustapha Dieng wax ne nun de li ñu bëgg mooy ñu utal chauffeur yi ay carte yoo xam ne ku dul dorisine d'origine taximaan bokkuloo ci benn gaaras doo ko am tey ñi proposé loolu bi ñu koy proposé ñu ci bëri xalaat ya ci yow lañ ko roote wala ci man wala ci ku mel ni ñun ndax amoon na fi ciy jamono mairie Touba bëgg identifier taxi ne da ko def vert blanc. Mhm. loolu bi mu amee gis nga coow li mu jur. ak li ci am lépp <laughs> ba mairie jëloon loolu teg ko fi suuf. Mhm. daanaka sax jàppoon njàmmoram ki taxi nga xam ne bëggatul dégg ko ko wax waxu taxi. yàlla dogal nag xëy na taxawaay bi ñu taxaw tax mu wëlbatiku nag euh, amaatuk jublu ci taxi. Mhm. moo tax bi ñu proposé li nga xam ne mooy carte yooyu Moustapha Dieng wax ne dina ci waxtaan ak kilifa muy maire. yàlla dogal na sax benn jour ci ko euh, bi ñu waajee ma ànd ak euh, président Matar jaw fi nga xam ne mooy miir bu Touba fekk fa maire na nañu dinaa leen defaral li nga xam ne mooy ay carte yoo xam ne dafay nekk ay autorisation de circuler kon pour tënk rek sëñ daam ndax fi ñu ci jaar yëpp bëri na xam nga ci dara mm-hmm. waaye pour tënk mm-hmm. nañu xam ne carte yi li tax ñu di ko defar mooy bëgg segg taxi mi ba ñi nga xam ne amuñu lu dul taxi mm-hmm. ñu wéyal seenub liggéey nga xam ne nag dañuy jóge ci àll ba ñëw di raaxaloo ci biir taxi di yàq sunub der di def naka sudul noona ñu génn leen ci li nga xam ne mooy secteur u taxi defal secteur u ba mu mel ni nga xam ne ñëpp dinañ ko mën a jariñoo kon ci tënk loolu moo sabab carte yi ñun ñoo ko sàkku mairie Touba ànd ceeg ñun dina ko defaral li ki topp itam ci sa biiru laaj mooy ndax mi ngi dox wala doxul ah kay mi ngi dox bu baax mi ngi dox bu baax. xam naa laaj la boo xam ne da koy laaj ngir ñiy déglu ak a seetaan waaye laajoo ko ngir sa jëmmi bopp ndax lu ci nekk xam nga ko kon xam nga ne mi ngi dox sama carte sax indaale naa ko mi ngi mi ngi mi ngi sama saak mm-hmm. carte yi mi ngi dox ndax li ñu njëkk a def mooy euh, recenser taximan yi nga xam ne ñoo nekk ci garage yi mm-hmm. fiche de recensement yi jot nañ ci lu baree baree bari loo xam ne euh, dañ doon bind turu nit ki aw santam adresse maanaam fi mu dëkk ci Touba numéro carte d'identité numéro permis ak numéro téléphone foofu lañu njëkkee bi ñu àggee nag ci di defar carte yi chauffeur bu nekk ñu laaj la sa photocopie carte d'identité ak photocopie permis bu fekkee carte d'identité bi réer na nag nga indi photocopie permis bi bind ki sa numéro téléphone ak juróomi téeméer yi nga xam ne entreprise bi koy defar moom lañ koy fay nañu xam ne carte yi itam mairie bi amu ci dërëm ñun ñii amuñu ci aw ñaar fukk deux mille cinq cent yooyu sax mënoon naa jar lu ko ëpp ndax carte bi dafa am biométrique maanaam sama carte man kenn mënu koo jëfandikoo kenn mënu koo falsifier euh, biométrique boobu nag mairie Touba ci seen xarañte ak informaticien bi nga xam ne moom la ñu yore muy seen jiili mhm. moo ko maanaam moo moo moo ko defar moo ko ci def moo tax may na ko gratuite te fi mu toll nii ngay eh, may wax yow sëñ daam bépp taximaan bi nga xam ne recensé nañ la yaa ngi ci base de données mairie bu Touba nga xam ne tey bu ñu bëggee xam sëñ daam loo mooy kan bu ñu tàppee turu sëñ daam loo def numéro carte d'identité mi rek dinañ xam sañ daam loo fu mu dëkk ci Touba dinañ xam ci ban gaaras lay daw dinañ xam lan mooy numéro permis lan mooy numéro carte d'identité même carte bi boo ko tiimee boo ko scanné euh, maanaam renseignement yi nga bëgg yëpp da nga ciy jot waaye am na nag renseignement yoo xam ne doo ci jot ñoom mairie ca mm. Touba ñoo ko yoree seen bopp ngir sécuriser li nga xam ne mooy carte bi mm. kon carte bi sëñ daam mi ngi mi ngi dox baax garage yu bëree bëree bëri car macha euh, jot nañ seen ay carte am na ñoo xam ne jotuñu lépp ndax ni ñu ko doon déposé moo àndul woon da nga doon gis kuy indi ñaar fukk boo liggéey mu indi fanweer boo indi boo liggéey mu indi nga xam ne daal mën na maa tudd aw turam moo ëpp doon jot mooy garage bu Mamor Ba moom li mu jot moom euh, fi mu toll nii mi mi ngi ci cent cartes wala cent neuf cartes yoo xam ne nii pare na jot na ko ba jébbal na ko seen ay borom bu yàggul rek am na koo xam ne kartam dafa réer mais mu réeree benn xale moo ko for mais automatiquement daf ko jox benn taximaan bi ñu ko dugalee ci groupe bi yow yaa ngi ci bàyyi xel bàyyi Serigne Diop donc carte woowu automatiquement borom gis na ko borom jot na am ko hmm. kon liggéey bi sëñ daam daal mi ngi dox bu baax ñu ngi déposé dossier yi ba tey yàlla dogal na itam ki nga xam ne mooy defar carte itam mi ngi koy defar dina ko jébbal ñu di ko jébbalaat seeni borom ndax euh, chef de garage benn munta dem rek mairie dugal say dossier mhm. faaw nga bokk ci fédération ñetti fédération yi nga xam ne moo fi nekk bi ma jiite euh, bi président Matar Diaw jiite ma koy nuyu di ko ziar di ko sant di ko gërëm ak bi nga xam ne moom la PAM Ndong jiite ndax union de fédération taxi de Touba bi nga xam ne moom la mairie Touba taxawalal boppam mhm. am ci reconnaissance bu wér ba def ko ci li nga xam ne nii mooy carte bi Matar Diaw da cee liggéey liggéey bu rëy rëy boo xam ne daf ko ànd ak euh, ñi nga xam ne ñooy chef de gare sam kon mënumaa ñëw fi mukk te sant ma ko gërëm ko ci ànd bi nga xam ne ñu ngi ko ànd ci union de fédération taxi de Touba di liggéey liggéey bu rëy sëñ Mahamadan Mbàkkeem sëñ Lahatit mënuñu koo ñàkk sant ndax moom it wax dëgg yàlla mi ngi taxawu taxawaay boo xam ne bu rëy rëy te jublu ci lenn lul dëkk bi am taxi mi nga xam ne moom méngoog dëkk bi nga xam ne nii mooy Touba bu ma fàttuwul dara ci sa laaj daal sëñ daam carte euh, yi moom macha allah mi ngi dox ñi ngi déposé ñi ñi ngi koy defar ñu ngi koy jébbal ñi ngi koy jébbal seeni borom ku mel ne sëñ Zakaria Fall itam ak équipe bi mu bokkal euh, bureau bi nga xam ne moom la nekk ci mairie bu Touba ñoom it wax dëgg yàlla sawar nañ ci ñu ngi ciy liggéey liggéey bu rëy boo xam ne wax dëgg yàlla carte yi euh, mi ngi avancé bu baax a baax sëñ daam loo carte yi mi ngi président Pape macha allah loolu am na solo. waaye émission bi comme ni ma koy waxee toujours rek du suñ émission ñun donte ñun ñoo koy animé ah, mais nekkuñ fi ne luñ xam te duñ ko laaj. Mhm. dañuy laaj pour ñëpp xam. ñu mhm. xam dëgg-dëgg kan mooy Pape Seck. Mhm. ak it Pape Seck yéen jéego la dox. ci union bi. ñu ngi ziar bu baax président Matar Diop comme ni nga ko waxee di ziare président Pape Ndong. président Matar Diop dafa def liggéey bu rëy. te ku def lu rëy nag am lu rëy kon yoon la ñu leeralal ko fii bu baax a baax di waa bureau boobu ñoom Moussa Pouye mm-hmm. euh, euh, ak sëñ Modou Aaj ñoom sëñ Modou Sall sëñ Modou Sall <laughs> sëñ Cheikh Fall ñaan ñoom ñëpp di jaare ñëpp daal mm-hmm. waaye comme ni nga ko waxee président Pape mm-hmm. kon yéen lii lu ngeen waaj la ba mu ñor xomm ndax dégg naa nga ciy sant sëñ Mahmadan moom sëñ Abdoulahat te it am doy naa ci seere ndax man yóbbu naa la maintes fois ci sama oto ba kër sëñ Mahmadan nga wàcc dox say ite ma dem taalal sama oto dem gis naa it maintes fois nga romb ma woo ma téléphone xamal ne ma lu alxuraanan waatul bu yow tamit ab waa bi xay yéen nga ci yoon wa uh-huh. booy dugg ci nit da nga ne jaar ci bunt ba ndax maire bi bu bu fekkee ne monsieur Abdou Lahad Ka moo fi nekk uh-huh. sëriñ Sidi dénk ko dëkk bi uh-huh. li ngeen di def ngeen tourné ànd ak sëriñ sëñ Moustapha moom sëriñ Abdou Lahad dem àndaat ko sëñ Mahmadan ah, kon mel na ne jaar ngeen ci yoon wi waaye nag jaar ci yoon moo waral résultat yi ngeen am ci yàlla na ko suñu borom àggale carte bi it am naa ci tuuti lu ma ci bëgg a leeralal te xam naa loolu yaa ma gën a xam muy am na benn benn taximaan yu naan dafa seer dafa nangam nangam mais carte bi ku xam dara ci wàllu imprimerie nga téye ko sécurité bi ne ci carte bi jar na 2500. Mhm. te dafa am loo xamante ni président Pape yéen du woon koy leeral te dañ ko war di leeral bu baax ci télé yeeg rajo yi. Mhm. ak ci groupe WhatsApp yi. Mhm. mooy carte bi du primé. carte bi du jeex amul date. amul diir waaw ne comme maanaam exemple sama classe gi bu ñu ko amee nii. ba bañuy am 60 ans dañuy mën a continuer di liggéey ci carte bi di ci dawal carte bi amul date du primé du jeex kon loolu dëgg dëgg dëgg mooy carte bi. léegi nag euh, président Pape euh, liggéey boobu yaatu na lool jamono yee seetaan naa ngeen def vidéo bu am solo ànd ko journaliste yi euh, di mel ne da ngeen séddale ay carte yoo xamante ni dafa jot a génn man mii démb seen équipe boobu woo nañ ma appel yu baree bari di ma laaj ndax suñu waa garage ñu ngi leen soo a commencé di leen di dugalal di leen di dugalal léegi bëggoon naa tamit bu fekkee ne maanaam indaale nga fi dara ci carte yi ñu wane ko ci écran bi ba nga xamante ni ñi nga xam ne ñoo ñu déglu ak di ñu seetaan danañ ci mën a am lu leer ndax li wolof naan weddi gis bokku ji tey 2700 yooyu chauffeur si di joxe nañ xamante ne man mii di wax ak yéen fay naa ci 17500 juróom-ñaari carte yoo xamante dañ ne ma versé nañ ma ko te man yëguma ko. léeru ma damaa yëgat rek fay kon ngeen xam ne 2700 yi ngeen jox Pape Seck jox ko sëñ daam la wala sëñ Ibrahima Samb ñu ngi koy ziaru baax di ziaru sëñ daam di ziaru suñ bureau boobu 500 francs bu ci wadd Pape Seck da koy fay loolu na leer 500 francs bu wadd ci diggante fi mu koy jël ak fi mu koy yóbbul commune Pape Seck da koy fay ñun nii suñuy carte ñun dañuy fay ñu defaral ñu ko kon loolu dañ ko war a leeral lool bu baax askan wi ñu xam ko am na nag président garage yoo xamante nii seen i membre maa ngi waxtaan ak ñoom ñu ngi may woo téléphone mais message bi dafa desee jàll ci ñoom di jàmbat na seen président garage ñoom ñoo leen ko leeralul ba mu leer dëgg-dëgg uh-huh. Euh, en tant que conseil commune. bëgg nañ tamit bu yii paasee. ngeen wax chauffeur bu ko amul ba nga xamante ni yegg ngeen fi nga xam ne fa lañ ko war a defee arrêté. Uh-huh. lu ko ciy fekk. Uh-huh. lu ko ciy fekk loolu bëgg nañu leeral ñu ko. tey carte yi bëgg nañ nga soññ seen gars yi ñu accéléré bu baax a baax. ba nga xam ne bu ñu yegg ci jamonoy màggal. Uh-huh. bu ñu amul 100 euh, pour cent yi ñu mën a am à 70 ou 80 pour cent. léegi nag bu fekkee ne président Pape indaale benn carte. nga euh, li ñu Oh, firnde wane firnde li daal hmm. soo borom pour nga wan auditeurs yi ak auditrices yi loo xamante dana gën a leer ak taximan ne président garage yi jërëjëf euh, sëñ Dame euh, am na solo trop waaw xam nga sax dafa am lu ma bëgg a expliquer waat tuut hmm. ba ñu xam ne kaat yi tëbu ju tëb rek defar ko hmm. ndax bi ñu njëkkee daje ak daaf dafa am lu ñu tënkoon ci waxtaan boobu mu ne dañuy jël ñetti weer ngir doxal loolu bu ñu bu ñetti weer yi matee ñu évaluer ko tegaat beneen point yàlla dogal na nag euh, li ñu tegoon ci ñetti weer yu njëkk yi réussir na yeneen ñetti weer yi itam li ñu tegoon yàlla dogal na itam ñu réussir ko nga xam ne mën na six mois bi ngeen demandé waaw waaw moo ko léegi nag euh, àgg nañ fi nga xam ne dañoo war a dajewaat dajalewaat chef de gare yëpp ngir ñu waxtaan ci date bi nga xam ne buñ ca eggee képp ku ko amul bu la police wala gendarmerie jàppee ah di nga dinañ la fourrière nga fay vingt huit mille francs loolu itam nit nit ñëpp bàyyi xel hmm. li ngay wax itam ci information yi nga xam ne itam euh, àggul dëgg-dëgg ci yenn chauffeurs yi hmm. loolu moom responsabilité bi euh, mi ngi aju ci président garage ndax bu ñu la jiitalee nga nekk président hmm. war war nga war nga am ak war nga mën a am ak dégg war nga nekk itam koo xam ne fépp foo xam ni nga fay woote ndaje moo xam ne dafa dafa soxal sa secteur. Hmm. nga dem wuy ji. boo wujjee itam nga déglu bu baax te boo fa jógee itam la nga fa jëlee nga nga nga jottali ko. Hmm. Euh, ñi nga xam ne ñooy sa njaboot. ndax ñun bu ñuy def recensement yi. wóor nañ ci garage yu bari. dem fu bari. leeral ñu baree baree bari mais garage boo dem ñaare. dina am ñoo fa fekk dina am ñoo xam ne fekkoo leen. waaye ñun ñan fa fekk bu ñu leen leeralee ba pare ñan fa fekkul itam war nañoo leeral ñi nga xam ne Euh, ñoo fa nekkul woon safar si itam du ñëpp waaye ñi ci ëpp nañ ma baal mm-hmm. da bari ñoo xam ne dara ñorul leen mm-hmm. li leen war a intéressé dëgg intéressé wu leen am na ñoo xam ne tey ñu ngi sur la route mais émission yi duñ ko sax liggéeyante duñ ko déglu ña nga ca yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne amul leen benn njariñ kon tam il faut ñoom ñu intéressé wu intéressé wu ci métier mi nga xam ne ci la ñu nekk jox ko yitte bu ma sëkk ba nga xam ne lépp loo xam ne mi ngi ciy xew ñu fexe koo xam am na ñoo xam ne dañuy tay taylu rek waaye yëg nañ mbir mi bu baax bu leen wóoroon ne carte bi ku ko am am am am nangami junni mm. ñoom ñëpp wuti nañ ci caaxaan képp la ñenn ñi nekk ak tappale nañoo xam ne nag ñun doxuñu ci ay caaxaan doxuñu ci ay tappale kon képp koo xam ne yaa ngi tax ci dëkk bi bëgg lu defar taxi mi mm. demal nga uti carte bi te xam ne carte bi ku ko amul bu ñu xësee jël délai bi mm. mais dina def ab arrêté bam dina ko jébal autorité yi te dañuy dem di ko contrôler comme ñuy contrôler droit di ko contrôler permis de loolu nañ ci bàyyi xel ndax carte loo xam ne kilifa yi ànd nañ ci ñëpp ànd nañ ci ndax taxe bi moom nu mu mel ci dëkk bi wax dëgg yàlla lu ci baree baree bari kilifa yi ñëpp dañ koy jàmbat mm-hmm. yeew sam xar bëccëg ndër kaam taxe jaar fa jël am na fi de li li ñuy xew daal dëgg dëgg seen daam sax mu ne su ko détaillé ci ab émission mm-hmm. kon na nga xam ne daal carte yi dañ ko def pour sécuriser li nga xam ne mooy secteur taxi kon ku ko amul des na tuuti yaay wuyoo taximan mais mairie bi dootu la jàppe taximan sëriñ bi dootu la ko jàppee autorité de autorité itam doon dootu la ko jàppe na nga xam itam Touba dëkk bu spécial la dëkk bu spécial lépp loo xam ne tëral nañ ko fi sëriñ bi ànd ci autorités yi dañ ci ànd mairie da ci ànd lii nag ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngànk dëkk bi ànd nañ ci kon képp koom itam yaa nga fii te bëgg lu baax bëgg weesam taxi faaw nga ànd ci di wax na itam euh, ci ci wàllu euh, carte yi nga xam ne euh, moom moom moom laa indaale euh, ñaari carte la benn carte bi nga xam ne moom laa indaale mooy sama carte conseiller municipal mm-hmm. ah, li tax ma indaale ko du mm-hmm. rek war nit ñi ne man conseil municipal laa ci lu wér mm-hmm. romb naa foofu mais dama bëgg safar si xam ne conseiller municipal li muy fort fort li muy am am doole ki Touba nga xam ne Touba li muy yaatu yaatu kar masala téeméeri nit la ñuy tànn def leen ay conseil municipal hmm. carte la am hmm, carte bi ñu am hmm. même carte la ñu defal sofëeri taxi yi xay na dañoo am waroo ndax carte bee carte conseil municipal la bii carte autorisation circulaire nekk carte professionnelle kon bu ñu demee ba Euh, di defal conseil municipal bi carte comme nañ koy defalee député bi ñu defal ko chauffeur bi kon chauffeur bi war naa xam ne niveau bi mu nekkoon démb bërki démb weesu na ko tey mu ngi ci beneen niveau kon lii dafa war a jar ñu góor ci dafa war a jar ñu farlu ci kon carte bii mooy autorisation de circuler bi nga xam ne nii comme ni ma ko waxee sama tur ngi nii sama sant euh, mm-hmm. sama numéro carte d'identité sama numéro permis ak adresse garage bi nga xam ne nii mm-hmm. euh, fa laa bokk waaw ngi ma defal non sëñ Mbacke Bousso. sëñ Mbacke Bousso waaw sëñ Mbacke Bousso ndax gin ginnaaw yàlla dafa dogal. <laughs> Euh, waa ginnaaw yàlla dafa dogal. Euh. Euh, ma bokk ci njiit yi. wa war teel am kart pour won nit ñi ne. nit ki lépp lu muy digle daf koy jiitu. te booba yàlla dogal na. Mm-hmm. dossier bi nga xam ne mooy. gaara sëñ Mbacke Bousso di Serif Diop. ni ngi koy defar. Mm-hmm. léegi te man fu ma neex bokk. Mm-hmm. gaara yëpp laa bokk. ma dem bokk ci gaara Serigne Mbacke Bousso mu ngi nii. waaw gaara Serigne Mbacke Bousso. ndax it lii mairie moo wax ne Euh, bépp garage bu nekk dëkk bi mën nañoo waxtaan ñu xool kilifa ga leen neex ñu tuddee ko seen garage kon garage bi nga xam ne moo nekk marché Guédé ñu ngi ko tuddee Serigne Mbacke Bousso di di lu yàlla nag kon man sama carte adresse bi mi ngi nekk garage u Serigne Mbacke Bousso kon looloo taxoon mooy indaale ñaari carte yi sama carte conseil municipal ak carte bi nga xam ne itam mooy carte taxi nga xam ne euh, wax dëgg yàlla sama oto bee nga xam ne maa ngi koy karkaral di ko toliyee <laughs> <laughs> waaw waaw <laughs> donc ci màggal gi bu ñu yàlla dimbalee ak jàmm. <laughs> da ngay na ma wut sama lamp <laughs> waaw ta taxi. waaw xam naa taxi di. xam naa bi mi tey moom émission bi émission spéciale yaay naan bi tey émission spéciale la. Mm-hmm. parce que même keroog dégg naa góor loolu sax na rek góor du jur ba nee na yi da ngay boo xam ne day jógee da ngay client boo xam ne day jógee Touba Dakar. fay li fay ñëw ba Touba ñu fay ko kam lañ ko fay koon coono boobu. Mm-hmm. kon président Pape lii moom weddi tuuma weddi gis bokku ci. Mm-hmm. carte bi mi ngi nii. carte bi nii. jar na cinq mille francs mhm. jar na quinze mille francs ndax léegi am na da ci liggéey lu rëy te xamu leen ko parce que man yoo xam naa mu baax damay gëstu mhm. te it euh, lu bëree bëri seet nenu ma ci gis nga lii nii mhm. cotisation circulaire ñëw na mais moom la mais mooy li ci gën a tuuti parce que bëri na chauffeur man gis naa chauffeur bu passé juwaat permis ngir ci permis yu njëkkee la amoon permis bi réer na xamul numéro permis bi waaw gis nga amul benn filiation ci permis bi waaw dafa mujj passe jowaab per waaw gis nga ba ma koy bañ waaw kon mën naa ne diw waaw léegi loolu moom jeex na ci carte bi ak carte d'identité waaw carte d'identité buy réer mi nga ne numéro man am naa sama numéro boo xam ne. même même la mais bu carte beeg carte d'identité beeg permis beeg yëpp àndee réer ñaanu ma ko yàlla. Mhm. tey sa sa numéro sa numéro permis boo ko soxlawaatee ñu jox la ko. alors ma nga ca mairie ba. lii ma la wax nii <laughs> kenn ci waa commune sa mbokk commune xam nga sama xarit la. sama xarit sama rakk joo xamante ni. Mhm. waaw mu nga carte baa noonu. comme ah, conseil municipal président Pape Seck carte baa noonu. waaw ñaan weddi gis bokku ci. waaw léegi allah. conseil la kon mi waaw ku la nax Pape Seck du dara ci léegi kon fii itam da koy def naa nag sëñ Abibou sama technicien macha allah xarañ ci liggéey te man macha allah <laughs> uh-huh. dana ñëw jël carte autorisation circulée bi. Mm-hmm. présenté ko ñëpp gis ko. Mm-hmm. kon ñu ne Pape Seck mi conseil municipal. non Seck prénom Pape. <laughs> bi mi ngi noonu kon ñu xam ne kon carte Pape Seck mi ngi noonu. Mm-hmm. léegi autorisation circulée bi. fi ni baa Bamba Ndiaye. am na sama rakk jox ne carte d'identité réer lu ne def naa ko bamba moom moo ma dafa liggéey bu rëy dafa mujj ñëw ne ma ndax mas na ci identifier benn piis man na ko mas na ci identifier benn piis damay bañ a tudd piis boobu parce que dañoo nekk ci mm-hmm. pi boobu la jël wootee daaf joxe piis bi ñu jël piis soo ko mën a génneel numéro numéro numéro carte d'identité bi mm-hmm. xam nga ne loolu kon yéen li ngeen liggéey fii carte bii nii jar na cinquante mille francs ndax pièce mooy nit. waaw te li nga wax ni man man sax dèjà maa ngi jàppoon ne bu permis bi réeree carte d'identité bi réer nga dese sa carte autorisation circuler boo demee mën ngaa génnee sa permis waaye nee nga même carte bu réeree. bu lépp réeree ma nga ma nga li par. lépp nga keroog euh, kii Zakaria Fall. lépp nga wax na ko dégg mu ne li ci biir lépp sax. waaw du ñeen ko wax. waaw wax dëgg yàlla carte bi dafa nekk avec. xam nga loolu li ñu am Touba ville spéciale la. Mhm. dëkk la boo xamante ni fi ne ni lii nii dëkk yu baree bari bëgg nañ ko. mais nag li nga wax noonu ci waaye di chauffeur su ma neexee wax kon ma xam ne chauffeur laa kon su ma ko mm-hmm. noonu mm-hmm. ni dañ naan li mm-hmm. rek fa mooy fenn <laughs> ah, ah, waaw a leer kon daal euh, autorisation circuler mi ngi noonu muy liggéey bu rëy rëy parce que mi ngi nii dafa tey ku a false sax mënoo koo false déedéet déedéet waaw tey nañ xam ne nag daañu rëy rëy da ciy am président Pape Seck wax na ko kon yéen chauffeur si waaj leen te ngeen dem jaar fi ngeen war a jaar jaar seen président garage président garage yi tamit ngeen dem jaar ko ci fédération ba leen neex. mu ne garage bu valable itam. mu doon gàtt mu doon garage bu valable. président Pape aussi yow double zero mooy sa numéro carte kon. mu ngi noonu. Mm-hmm. Mm-hmm. depuis deux mille vingt-trois léegi. Mm-hmm. Euh, garage yi aussi. bëri na ñoo xam ne ñu ngi jàmbat ci ne am na garage yoo xam mu nekk baaxul. yéen nag gis naa yaag euh, Baye Pape Uh-huh. sa waay la loolu gis naa génn si liggéey yu bari ba ci marché occasion gis naa liggéey bu rëy ci wàllum vaar waaw ñu ñaanal baax suñu suñu sëriñ sëriñ Mara bi ngeen ko doon seen si doon seen ceexu naa seen ceexu naa yàlla na ko suñu borom yërëm mm-hmm. wax dëgg yàlla kon léegi loolu ñu wax noonu ci garage yi nga xamante ni euh, desuñoo valable à cent pour cent mm-hmm. yow nga doon conseil commune doon aussi président fédération mm-hmm. samp garage yu bari ba ci sama garage yow yaa ñu samp yaa ko ñëw samp si. Uh-huh. utal ñu ay kayit yu légal. Uh-huh. léegi président garage yi nga xam ne ñu ngi lay déglu ak euh, taximan yi nga xam ne ñu ngi lay déglu. Uh-huh. liñ ne garage yi am na yu valable loolu dëgg la wala déet ak ku bëgg gaz bu valable gaz ci lan lay bootu yan ban symbole wala ban signe lay am pour mën a doon gaz bu valable wala wala wala déet. Uh, jërëjëf sëñ Dame uh, laajal nga laaj boo xam ne laaj bu am solo la ndax njàmbar yi bëri na. da dégg ñu bari naan garage yi dafa bëri garage yi dafa bëri dëgg la garage yi bari na kaar macha allah waaye garage yi ñu wax yu bëri la yi ci normal lu jaadu la ndax euh, comme ni nga ko laajee te bu ñu tëb rek taxawal li nga xam ne mooy garage yi am na nag garage yu ñuy signalé mais du ay garage mën naa ci tudd comme bi nekk ci agence de voyage bii euh, nekk ci poste contrôle bi muy euh, seexul xadim bi diggam ak euh, li nga xam ne mooy euh, banque islamique bi mm. garage boobu du garage bu valable mm. foofu mënul am garage taxi mm. microcrédit bi nekk vingt huit waaw ñi ngi may wax ne am na garage taxi bu fa nekk garage boobu valable foofu mënul am garage taxi kër El Hadji Mbacke ci yoonu Guédé waaw am na ñu wax ne am na ñu fa def garage taxi foofu tam mënul nekk garage taxi même que sëñ Sonia bu am na fu ñu may wax foofu te ginnaaw ko sëñ Sonia bu. am naa di wax ne tam am na garage bu fa nekk. ko sëñ Bass. waaw mm-hmm. mais euh, man xamaguma sax exact fan la mm-hmm. mais xamumu foofu mm-hmm. euh, ban garage moo fa war a nekk boo xam ne bu valable la. mooy que sëñ Bass état la ci insi rek kon nañ ci bàyyi xel. bëri na ñoo xam ne ñu ngi demander pour am garage surtout bi nga xamee ne carte autorisation de circuler yi génn ndax dafa am chauffeur yoo xam ne dafa am bërëb yoo xam ne dañ faa yàgg nekk di fa dajaloo. léegi nag bi nga xam ne ne commencé nañ carte autorisation de circuler yi euh, dañoo wax ne maanaam garage yu bari seen adra yi dafa seer dafa seer de trop mm. léegi nag li ñu mën def mooy taxawal seen garage bopp mm. nga xam ne dinañ man am seen ay adra yomb pour mën a am garage mais euh, na ñëpp xam ne garage dafa am ci ay normes yu ñu koy taxawale ah, benn euh, pour nga mën a am garage taxi il faut nga nekk ci bërëbu fajukaay centre de santé wala district wala hôpital wala poste de santé yu demee noonu waaw waaw waaw parce que dafay nekk bërëb yoo xam ne euh, nit ña xam ne ñoo fay jóge ñi ci ëpp dañuy nekk euh, ñu tawat ñaare ñooñu dañuy soxla woo bu ñu génnee am taxi am aussi taxi bu sécurisé ndax taxi nga xam dañuy nekk ci garage yi euh, règlement intérieur yi nga xam moom la ñu tëral ci garage yi dafay tax ñaare chauffeur yi dafa am na ñuy doxee nu bokkut ak chauffeur bi nga xam ne nga ko romb rek ci mbedd mi jël ko moo tax hôpital yi ak yooyu dañuy am li nga xam ne nii mooy garage taxi Euh, avant nag ñuy tëral euh, programme yu bees yi am na sax certaines banque yoo xam ne am nañu li nga xam ne mooy tax lu ci mel ni CBAO xayra mais na nga xam ne tam tëbuñu tëb rek def ko CBAO xayra am na ay ay quelques agressions yoo xam ne doon na am ci clients yi doon génn ci biti di jël di jël taxi hmm. euh, moo tax itam bi waaw ba nga moo tax itam bi ñu demee ba gis ne foofu ay taxi ñu ngi fay dajaloo te bërëb la boo xam ne nii laaj na ñu gën ko sécuriser gën a sécuriser clients yi fay jóge moo itam Euh, ñu organiser fa gaaras teg fa gaaras boo xam ne tam ña fa nekk car macha allah wax dëgg yàlla ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax a baax euh, di jubal bu fekkee ne tam dafa nekk marché normalement aussi dafa war a am gaaras moo tax marché Kër Ñang gis nga am na gaaras marché Jeewal am na gaaras marché Daaru Xudoos am na gaaras Jannatu Maxwa am na aussi gaaras marché Maam bind am na gaaras euh, même Daaru naan tey gaaras taxaw na fa bu bees boo xam ne dafa lëkkale marché bi résidence Cheikhul Khadim ak poste de santé bi nga xam ne moo nekk ci sapeur pompier bi ku ñuy wax Cheikh Saliou Guèye euh, moo ko jiite kon nañoo xam ne daal garage yi noonu lañ koy taxawale mais mënuñu euh, fu ay taximaan dajaloo rek angal bu ñu dàkk rek dajaloo fa rek def ko garage ñu saxalal leen ko defal leen ko garage te rek ci ngoon maa ngi intervenir ci benn arrêt boo xam ne dañ ko bëggoon soppi garage ci marché Ocass hmm. boo xoolee fi sareeti gare yi doon taxaw borom bee centre commissariat si Mourtala fi suñ mun dem ñoom mm-hmm. Mm-hmm. am na ay taximan ñu doon dajaloo foofu ba commencé woon bëri car macha allah ba ñu woon si ay démarches pour am ay kayit mm-hmm. tey falaa gontoon waxtaan ak ñoom pour ñu bokk ci euh, regroupement bi nga xam ne mooy bu sëñ Modou Dem su ko defee ñu jàppandal leen li nga xam ne mooy adra yi mu nekk benn ndax marché Ocass garage yi euh, ñu bëri ñu ngi jàmbat garage yu bëri yi fa nekk mais am na ci yu valable mais yoo xam ne valable ay nit ñooy dajaloo fenn ba mu rek ñu def ko garage loolu itam il faut que nit ñi xam ko bu ñu amee tam yenn problème yi ki yenn garage yi ñuy woote di laaj pour que ñu leen di jox information ci ban garage moo normal ak ban garage moo normal mais duñ ci yem euh, am na loo xam ne ñu ngi koy waaj ci garage yooyu nga xam ne normalul ay nit bëgg féeteerlu taxaw taxawal ko di fa teg ay coxeur di jàppe morodaas liggéey bi mu ci war a def ak ñu ngi ko war a séqal muy force de l'ordre yi loolu liggéey la boo xam ne euh, duñ ko duñ ko jàllale euh, ci ay télévision wala ci ay rajo mais nañoo xam ne daal lépp li nga xam ne day taaral taxi mi di defar taxi mi di ko sécuriser di valoriser ñi nga xam ne ñooy taximaan yi loolu ci la ñu nekk yàlla doon itam maire Abdoulaye Atka ànd na ci ak ñun mi ngi ciy dox ak ñun te jàpp nañ ne lu nu gën a dem rek taxi mi gën a organiser wu gën a sécuriser wu te organisation bi nga xam ne moom la ñu fas yéene teg sécuriser ko ba nit ñi gis ci seen bopp mooy tax ëllëg ñu mën a am ay financement yu jógee ci état mooy tax ëllëg ñu mën a am renouvellement parc ah, wala changement parc parce que changement parc la ñu mën a am ndax amaguñu amaguñu li nga xam ne mooy ay taxes bay def euh, li nga xam ne mooy renouvellement kon kon daal seen daam euh, ci anam yooyu daal mooy anam yi nga xam ne euh, ci la ñuy taxawalee li nga xam ni mooy mooy garage du taxi pour mu mën a nekk garage boo xam ne garage bu wér bu wër lay doon très bien waaw parce que euh, jërëjëf président Pape Seck kon euh, seen fréquence rajo bi 99 point 0 fii ci Assalaamy FM jàkkaarloog Pencum Paaleen langoog kër Serigne Cheikh Ndigal Fall ah, téléphone bi di 88 628 53 53 mooy buumu jokkoo bi képp koo xamante ni am nga ci question boo bëgg a laajte wala nga am ci wala nga bëgg a participer ci émission bi.

bëgg naa bala ñuy sori buntu émission bi bala ñoo dem ba bay tëj euh, tamit euh, nit ki bu defee lu baax di góorgóorlu da nga koy sant gërëm ko ak it nga euh, yaatal ko fa mu fa war a yaatoo. Mm-hmm. mooy renforcement des capacités bi nga xamante ni yaa ngi koy def yenn ci chauffeur si. Mm-hmm. ba nga xamante ni fii nii kenn ku ci nekk ci ñooñu noonu. mën naa yor mi ngi yor kuréelam di ko doxal. Mm-hmm. exemple mën naa ci joxe sama ba man mii nii. parce que man yaa ma njëkk a daal ci rajo. waaw boo xam ñu def émission. mooy jàll macha allah. Mm-hmm. ñu formé ñu ba nga xam ne fii nii permis bi ñu yor lépp oto yi mu autorisé yëpp mën nañ koo dawal mu neexee permis transport en commun bi ñu yor nga xam ne dem nañ ba renouveler ko ba nga xam ne mat na 15 ans fii nii. Mm-hmm. mais jàngaat nañ fi bu baax a baax nga xam ne kon li ñaan ni nga ko tuddee jàng du wees mooy dëgg. Mm-hmm. ndax ba niveau bi ñu toll ak niveau bañ tolloon ba ñuy ba ñuy am permis bi. léegi am na différence trop te bu loolu nag grâce à toi. Hmm. yow lañ ci sant bu baax baax kon président Pape carte bi mi ngi noonu. Hmm. côté devant bi mi ngi noonu. nekk noonu. Hmm. def nga na xam naa bu réy <laughs> jël nañ ko gàccaal leen ko. ndax xam nañ seen xam-xam mate na ko. xanaa ne APID li tubaab li ñuy wax de l' état. kanam moo def kanam moom moo moo moo nekk nii. comme ni nga union des Drasso tere non ay eh, noom no mi ngi noonu mi ngi mm-hmm. noonu Pape Seck la mm-hmm. numéro carte bi mi ngi noonu waaw nga jaakaarloo noonu mm-hmm. numéro carte d'identité nationale bi mi ngi noonu nga jaakaarloo léegi euh, autorisation circuler waaw Pape Seck euh, double euh, double zéro double zéro vingt cinq deux cent cinquante te CTM bi mooy commune de Touba. carte nationale identité bi mu ngi noonu. Mm-hmm. Ah, numéro permis de contribuer aussi mi ngi noonu ci 102 bi noonu. Mm-hmm. garage bi mi ngi noonu Serigne Mbacke Bousso. 10 22 50 waaw carte bi macha allah taaru na trop xam nga lii nii dafa am solo trop. président Pape. Mm-hmm. am na loo xam ne nag dama koy ñaan. muy taximaan yi ñu ngi jàmbat bu baax a baax ci traversée de voies deux voies deux voies yi ñuy jógee Mbacke Touba. bu fekkoon ne leer na ma naññ ne da ngeen am à 70 ou 80 pour cent. avant de màggal. bépp chauffeur boo xam ne ñoo di ñaan autorité bi pour jéggi di ñaan takku der pour jéggi nañ ñaan bu baax suñ commandant yi ci plan circulation bi nga xam la ñuy teg ci màggal gi ñu sant bu baax commandant Thiam ak commandant yi nga xamante ñoom la seqal dëkk bi ba ci njiital président commandant Thiam ak commandant Diakhaté mm-hmm. ak ki nekk Goumbi mm-hmm. su ko defee chauffeur bu ko laajee carte bu ko wanee ñu xam ne que taximaan Touba la ñu bàyyi ko mu jéggi ndax taximaan ni ñu ngi koy waa xam naa ne loolu màggal gi ñëw ci ngeen di gën a am cent pour cent nga ne bu boobaa moom jéggi ku ñëw di jéggi dañ lay laaj sa carte boo présenté sa carte ñu xam nga loolu dafa gën doon loo xam ne dafa noobule buñ de bala bala ñu émission yi buñ demee bay bala ñuy jeexal nag su ko dee woote bi ngay woote di 24. muy njiit jiit gi nga jiite COJER muy sécurité routière tey it mu nekk loo xamante Touba day mooy màggal Touba mooy seul événement boo xam ne ñëpp benn côté lañ jëm mm-hmm. waaw ci loon liggéey liggéey boo xam ne liggéey bu rëy la xam naa ne bu ñëwee ba ci kanam tuuti da ñëw indi ci ak leeral bu baax a baax a baax ñu jàllale ko parce que rajo bii nii suñu rajo la télé bi suñu télé la parce que sëñ euh, Fallou Gala Sylla naa doon doomu dëkk bi aussi tàllal loxol ñëpp di liggéey liggéey bu mucc ayib mhm. fi ni ni boo ñeen fekk ak ñoom fii nii doo ko xàmmee ak ñun ñi ñoo ko gën a fooru col ñoo ko gën a di taal moom daal li mu woote mhm. mooy li moom mooy ak taalibe mhm. ak taalibe kon président Pape Seck man sama bopp maa ngi lay santal sama bopp bu baax a baax a baax mm-hmm. ci liggéey bu rëy bi ngeen liggéey ndax defal ngeen ko seen bopp mais defal ngeen ñu ko ñun mm-hmm. te président garage yi mm-hmm. ba liñ naan buñ fayee bor dañ koo war a leeral seen askan ndax léegi fi ni nii garage yu bari da nga naan dem dafa dagg adara ay cinq mille francs dix mille francs léegi gis naa fi ay garage am dagg ay adara cent mille francs ay adara cinquante mille francs ngir nit ñi leen song pour am autorisation de circuler loolu président Pape fan nga ciy àddu ci côté boobu noonu jërëjëf euh, sëñ daam ñu euh, ngi ñu ngi ñu ngi santaat bu baax daal sëñ Tuubaa Seex al Xadiim ci dimbali gim ñu dimbali ci xeer ñu ci ñu liggéeyal ko di la sant waaye di sant mboolem ñu ñu bokkal fédération bi te ñu mel ni yow ndax comme ni nga ko waxee renforcement de capacité bi nga xam ne def nañ ko ci secteur transport du rek ci wàllu code de la mën na maa jël exemple garage u arrêt Bara bi ma fa benn xale bu ñuy wax Serigne Saliou di di ma wax ne dañ faa bëgg def gaaraas boobu amaguñu gaaraas benn bis ma jógee ndindi ci gaaraasu taxi mi nekk ndindi Abdou Diop joxoon leen heure ñëw fa ay ginnaaw timis bi ma ñëwee rek diggante bi ñu fa toog ñu nekk group bu ndaw di réunion man Serigne Saliou moom ak Ndiaga ak ay quelques personnes gis naa ay ay chauffeur di ñëw di gaare seen oto di dem ci ginnaaw garas bi noonu mhm. di fa tux mhm. nga xam ne ñu bëri tuxukaay lañ ko def. lañ ko defoon tuxukaay si keneen ak tuxukaay la ko def. ah dafa lëndëmoon këris sax. waaw hmm. nga xam ne bi moxtaan waxtaan ñoom dañ maa wax ne ma fii amul ñaari fan ñetti fan te police bu ndaamaatu du fi def descente. Hmm. xam ne dañ koo boole woon ci lieu yi nga xam ne hmm. lieu bandi la. ci Touba gi waaw bi yàlla dogalee nag ñu agsi fa. ñu organiser li nga xam ne mooy garage bi comme li ñu koy defee tegal leen règlement intérieur. maanaam. du rek dangay ñëw ne bëgg naa gaaras rek mbooloo maa ngi nii ñu taxawalal la gaaras dafa am itam ay sart yoo xam ne moom la la fédération bi di sartal ci noo war a doxe ci dëkk bi noo war a respecté ñi nga xam ne ñoom ngay àndal noo war a respecté ñi nga nekkal ci bërëb bi nga nekk waaye itam noo war a wàccoo ak ma yi nga xam ne mooy wormay dëkk bi moo tax bëri na ci ñoo xam ne fa ñu leen fekkoon ak nañu meloon ci wàllu doxalin ak wàllu jaxasoog doomu aadama ak ni ñu mel tey wuute na lool kon dafay mel ni secteur bi am na ñu bëree bëri ñoo xam ne sax xamuñu woon naka la ñuy jiitee ñaari nit waaye tey ku leen jox sax fédération bi nga xam ne moom laa jiite ñu yor ko yor wu gën bi ma ko yor te lépp euh, formation boobu mu ngi jaar ci li nga xam ne nii mooy fédération bi ci wàllu jàng du wees bi tam xam nga ne group bu taxi tubaab yi itam. saa bu ñu ko yàlla mën loo dimanche. dañuy def question réponse réponse laaj bu waay bëgg a laaj. Hmm. njàpp yeeg yëpp da ngay dugal sa vocal laaj sab laaj. ci hmm. saa sama liir ko. tontu la leral la ci loo xam ne lépp dafay méngoo ak xam-xam. Hmm. kon euh, renforcement de capacité bi sëñ daam. lu am solo la ndax euh, avant ngay uti permis li nga jàng li ci ëpp mooy signalisation yi. muy vertical wala horizontal mais ginnaaw nag bu amee permis de conduire ba pare dafa am beneen formation ba war a defaat te nit ki bépp métier mu ma nekk rek formation dafa ko teewaat surtout renforcement de capacité te métier am taxi day métier moo xam ne dafa bëri lu mu laaj laaj na ab yar laaj na ay teggin laaj na maanute laaj na fulla laaj na fayda laaj na xel mu rëy ak fi du rëy ndax nit ki moo xam ne dafa bëri ay ay ndëgg sërëx bëgg bëgg ay bëri ay pièces surtout ci jamono ji yaa ngi dégg ñaari fa ñetti fan taximaan boo xam ne nit moo ko nax yóbbu téléphone am nit moo ko nax yóbbu téléphone am ak àbb ko as wekket hmm. moo tax tax taximaan bi saa su ne war nay dolli xam-xamam ci tolluwaayu jamono waaye tolluwaayu itam xelum naxekat yi nga xam ne lu sam xel xel rëy rëy rëy ñu ëppalam xel ba jaar ci sa kaw nax la kon renforcement de capacité seen daam wax dëgg yàlla nit ki sant yàlla baax bëgg itam di ko continuer waaye bëgg état du Sénégal du ko ci loxo ndax it liñ ci def leen ñoo koy def ak sunu pas-pasu bopp sunu moyen bopp waaye kenn fekk guñu ci dimbaleen ci ñaari fiftin waaye nag ñu ngi sant yàlla bi nga xam ne dëkk bi ñu koy def sëriñ bi lañ koy defal te xam ne sëriñ bi moom lu ko waaye defal am na payam li ñu wax nag ci wàllu traversé bi nga xam ne taximaan yi dañ koy soxlawoo sax année ñu di leen ko xañ tax na bis bi nga xam ne dinañ ci ñëw muy bis bi ñu war a dajalee acteur yëpp. ak et ak ñi nga xam ne ñooy waa ministre des transports ñu waxtaanee màggal gi. bokk nañu bokk na ci li ñu war a waxtaanee. ndax daaw euh, nit ñi ñu ngi tàmbat. taxe dix mille taxe quinze mille taxe vingt mille. dëgg la li ñu wax sànq ci pëtixoo gi sabab na ko. ay taximaan yoo xam ne dëkkuñu ci dëkk bi seen yoon nekkul ci secteur bi ci àll ba la ñu jógee xamuñu dara ci dëkk bi ñaare sax ñu yàpp nit mu leen guy mbind. ñu yóbbu ko feneen fu bokkut ak duñ ñëw wàcce ko wàcce ko ay bagages dem seen ay yoon <laughs> loolu am na fi te lépp nag dañ koy bubaat xëppaan ñu ko ñun taximaan tubaay moo tax nag ren ñu bëgg gën a jël suñu responsabilité ci gën a waxtaan ak autorité yi ñu gën a bàyyi xel taxi mais xam ne ñaare sëñ daam loo dëkk ci dëkk bi xam dëkk bi loolu kaar macha allah waaye plan de circulation bi nga xam ne moom la ñuy teg te duñ ko ci may dara mun taximaan bi mm. dina tax mu wiiri wiiri boo xam ne dëgg-dëgg client boobu waroon fay 2000 dina fay set 7000 wala mu fay 8000 ndax fa mu wiiri mooy sori soriwaay boo xam ne mm. ak ndox mi ak embouteillage bi du ñàkk man a bañ a fay lu seer mm. kon nañu xam ne plan de circulation bi cause la bu wér ci yokkute paas bi nga xam ne mu ngi am ci taxi biir Touba moo taxoon sa daaw boo ko seetloo xëy na doo ko di ko dañoo conseillé woon taximaan ñu def taxi sectoriel. sëñ daam loolu mi nga xam ne daaru minam la dëkk. miin na daaru minam. mu yemale am taxeem ci daaru minam nga xam ne du soxloo gi foo xam ne dañ ko koy tere. ki dëkk daaru mën naan noonu ki dëkk daaru tanzil noonu ki dëkk saal noonu ku nekk fa nga dëkk. gën ko miin wala fa sa a féete nga gën ko miin nga yemal fa sam tàkk ci durant màggal gi nga xam ne doo soxla woo di jël ab client boo xam ne fa nga koy jëmee euh, doo am fenn foo jéggee moom da day mujj la mu waroon a fay mm-hmm. euh, nekk pay goo xam ne pay gu seer la mm-hmm. kon euh, ci wàllu jéggi bi moom sëñ daam ak plan bi mm-hmm. bokk na ci lii yokk paas yi kon faawoon na waxtaane ko ba nga xam ne autorité yi dinañu gën a jàpp la xam naa nag soo gisee at yi wees sóoraale wuñu woon taxi ci li nga xam ne mooy plan de circulation beeg màggal gi man an année yu bëri dama yëkkati kàddu bëgg a wax ci affaire taxi mais duñ ma ko may dañ ma xam ne taxi moom pëcc la mais li ñu teg nag nga wax ko léegi muy autorisation de circuler mën naa dem ba permettre ñu ñu am ay macron yoo xam ne dañ koy séddale comme ni ñu séddalee carte yi. Mhm. da ngay am sa carte. ñu jox la macaron boo xam ne da nga koy def sa pare-brise mu nekk sa macaron bu sécurisé boobu da nga koy taf ci biir. kenn du ko mën a xoolee kenn du ko mën a sàcc. nekk bi gisee wala gendarme bi dina xam ne kii kat. oto la boo xam ne ñëpp ko bokk mhm. ndax particulier mën ngaa dawal rek jéggi tali bi dem gaare mhm. mais taxi moom day soxlawoo di jéggi vingt quatre heures sur vingt quatre kon kooku war nañ koo mën a jàppale tey oto la boo xam ne néew ju doole bokk ki am dooleeg ki mën ak ki mënul ak handicap beeg ñëpp dañ koy yittewoo ñëpp dañ koy jëfandikoo mm-hmm. kon kooku dafa nekk oto boo xam ne ci biir màggal gi durant màggal gi dañ ko war a mën a jàppale lépp nag mi ngi aju ci suñu organisation ak suñu taxawaay mais jàpp naa ne daal màggal gi ñu dëgmal loolu nga wax dinañ ci gën a waxtaan gën a xool itam yan pexe la ñuy teg yan mécanisme la ñuy teg ba nga xam ne daal dinañu xàmmee taxi bi dëkk ci dëkk bi mm-hmm. ak taxe bi nga xam ne euh, taxe la boo xam ne mairie bu Touba reconnaître na ko ndax mu ngi ci dëkk bi tey mi ngi fay li nga xam ne mooy droit de stationnement ci biir euh, Touba. jërëjëf président xam naa nag euh, yéen ni moom du dara waaye protéger sa bopp la yéen clients yi nga xam ne yéen a ngi magal yéen gan yi magal waaw dee ci bàyyi leen zone noire yi Touba amul zone noire dee leen jël yeneen oto yi teg làmp yooyu mooy gën a doon oto yi Touba zone noire yi fu ne la ñuy jógee Kaolack Dakar fu ne la jógee màggal si buñ màggal see Euh, classe su dañoo bëgg xaalis buñ màggal see profito di jéem a tax. ñun mm-hmm. ñu dëkk bi lii Pape Seck wax léegi da ngeen ko am da nga ko guy mbind mu yóbbu guy ziar. pour mm-hmm. guy gi rek lay dégg. Mm-hmm. jëlee la fii yóbbu la fee sànq la. li nga wax ne président Pape daaw màggalu daaw rek am na ci acte bu ma ci def kër dafa mujj sax alkaati bi daa mujj di ma ree ndax damaa ñëw fekk ñaari taximaan seq ko. kii ne ko damaa bëgg a jéggi dem barabu sëñ Afia Bousso foofu ci tolloog buntu arrondissement Ndam mu ne ko man dañ maa baareloo fii ne ma oto ba amul laissez-passer bul jàll kon mm-hmm. takat ko der bi moom li ñu ko sant rek lay def mm-hmm. kenn ki ñëw di ko ñaan ne ko léegi may ma damaa bëgg a jéggi ci hôpital ci ginnaaw hôpital bi laa jëm côté raay bi soo côté kër maanaam mm-hmm. fa laa jëm ñoom ñaan ñëpp kenn ku ñu nekk di ko ñaan mun leen man daal dañ ne ma oto ba am laissez-passer wala ba am ordre mission nañ ko bàyyi mu jàll te yéen ñaar kenn yoru ko ci bi ma ñëwee dama leen eh kaay leen xëcc taximaan ni ba ñëw mu ne leen yéen ay gone ngeen ubbi leen seen maal yi kenn ko teg jox sa morom client ah? waaw ngeen wecc mën na wecc leen ay client oto oto la tax bi ñu weccoo wa wàcc fa police ba ma ma <laughs> mu ne ma noo tudd mu ne mu ne ko dama la koy jaay mu na leen yéen a jéggi raay kii mi ngi bëgg a jéggi ngeen nekk solo police bi huit hmm. oto li mu leen wax dëgg la moom ndigal lañ ko jox oui jël yéen leen bagage yi jéggi ko doon ba ñu ko jéggi tëli bi leen seen temps ku nekk jël sa client morom mm. ngeen dem seen jàmmale yooyu tamit waaye mais pourtant bi dem noonu lañ mujj lijjante kii woon noonu mm. ñu xam ne ñun fiñ fépp fu ñu nekk yéen lañ fa nekkal mm-hmm. fépp fu ñu nekk taximan yi lañ fa nekkal ñun ñuy jiite ci fédération yi mm-hmm. métti na trop nag lu ne lu ne lu ne lu ne dégg nañ ko si mm-hmm. waaye nag dañuy fexe am résultat fédération yi dañuy wax ni duñ def lu sotti mais xam nga ne carte bii nii. Mhm. fi mu taxi dëkk boo demoon tey pour reposer ko taximaan ya bëgg nañ ko. Mhm. yéen ñi nga xam ne yéen koy am nag ñu wax leen dëgg-dëgg li ngeen yor mooy lan carte baa ngi nii. Mhm. carte bi boo xasee am béy ba nga xam ne yow jubadi jeex na ci yow. loolu na ko sóoraale. ndax carte bi sa lépp ma nga commune ñu te def ko ci machine yi. lépp lu nit lu Pape Seck soxla tey ci yow day dem directement man koo xam. ndomba tànkam may na ko. Mhm. ndomba tànk boo am ci commune bi may na ko ndomba tànk bii mu doonee sa kilifa ci li nga ne. Mhm. may na ko kon képp koo xamante ne jub daal ni ñu wax ci réew mi jub ak jubal ak jubanti moo la tax a ñoo jóg. Mhm. jaaral pour fexe am carte bi nii. leer na nañ carte président Pape Seck mi ngi nii. nii nga xam ne nii la carte am noonu la carte yëpp yëpp yëpp du mel. te carte bi bépp njuumte boo xam ne am na ci te nga xamante ni erreur la boo xam ne ci wàllu ci seen ci ñoom la boo ñëwee dañ koy defaraat ba mu mel nam meloon. bu dee loo xam ne nag yaa joxe loo xam ne bokkut ak li nga sa pièce moom boo ñëwee loolu moom da ngay da ngay da ngay jaarat fa nga jaaroon ah. pour ñu jël sa carte defaral la ko ba mel ni nga xamante ni noonu la war a mel ah. en tout cas daal man keroog biñ dajee ak maire profité naa wax ko ci su doon sama sañ ñun ñëpp ay doomi réew mi lañ te fii ñu toll réew mi bu jagee ñun ñoo ko mën a jagal bu jagadee ñun ñoo ko jagadil ah. dama ne ko woon ñu utal ab centre bu ñu utalee ab centre comme que yàlla dogal na seen kalaat gi ci oto ngeen liggéey te yàlla dogal yow yoroo taxi dem di taxi ji nga xam ne am nga jot tuuti ci benn côté bu ñu utaloon bu ñu jàppale woon loolu man commune laa koy njëkk a sant su ko defee buy fexe moom nu ci état jotee ministère de transport wala l'intérieur wala moo xam nu mu koy lijjante moom mooy jaale moom waaye moom maire li ñu koy ñaan mu ubbil ñu centre bu yaatu boo xam daf ñu utal batiment boo xamante ni dala fay jël féetal la ko yow mii ak ñi mel ne yow su ko defee dee former sa bopp di jàngal. Mm-hmm. ndax fi ne doomu aadama dara jiituwu ci sécurité sécurité yi te oto bëri na si loo xam ne sëfoon ñu ngi koy def ñaan daa réew réew rey sa bopp yëgu ci réew. Mm-hmm. am na loo xam ne ñàkk xam rek la bu nit ki bu demee ba xam dëgg dëgg dëgg yooyu yenn yi dana jum ndax fi mu bëri na accident yooyu dégg. chauffeur bàccee njëkk a faatu mm-hmm. li ma wax na moo ji ne nit ki lu mu réew réew xanaa du réew bay rey boppam kon da xam ne kooku nit ñi dañoo réew ak ñàkk xam mm-hmm. ndax dañoo nuroo lool ñoo bokk daanaka fu ñu arrivé kon loolu bu ñu si mënoon a jàppale ndax fi ne ni njàng mi ñuy jàng di jàngal sëfur su baree bari ak xale yi nekk ci garage yi di raxas du fenn fu dul ci téléphone yi lañ jël ay groupe whatsapp chaque dimanche Pape Seck def benn audio dugal ko ci ay groupe bu transport su ay groupe bu taximan taximan yi di ko posé ay question mu leen di tontu di leen posé ñoom ay question ñu tontu muy xool ndax lim leen di jàngal mi ngi su ñoom waaye xam nga ne téléphone ñëpp amuñ ko uh-huh. connexion ñëpp amuñ ko uh-huh. bu ñu amoon barab boo xamante ni te loolu li tax ñu koy ñaan meer uh-huh. dañoo xam ne lii daje na ci moom am na ko mën na ko te am na yéene te it am na bëgg-bëgg bi xanaa mu nekk cim xelam ñu fàttali ko ko leeral ko ko parce que moom mooy kilifa ci côté boobu noonu. Mm-hmm. comme que ñëpp ñu ngay jot seen wàll wax dëgg yàlla mu xañul kenn wàllam ñun tamit dañuy continuer di dagaan suñu wàll. di ko ñaan mu mën ñoo dimbali. utal ñu centre boo xamante ni. Euh, même bu doon ab bâtiment la bu muy jël te mu jël ko. jël mm-hmm. ku mel ne Pape Seck teg fa. am na mu warloo moom muy jël temps yoo xam ne heure boo xam da koy jël mu jël ay cours di ko joxe. su ko defee même bu ñu doon dem ba nga xamante ni chauffeur si képp koo xamante ni euh, lañ la fay jàngal dem nga ba indi ci ay résultats yu leer. Ah. bu ñu amoon benn diplôme bu ñu lay jox soo ñu jël di la ko jox. Ah, ah, hmm? boo xam ne commune da koy reconnaître. su ko defee tey ëllëg daam loo bu gisee kee ale mangaan mais am leneen dana ne ah ale lii mu am man daam naa fexe am ko. daa dem jàngi. daa dem jàngi ndax fi ne ni jàng mooy lépp. jàng mooy moo couverture métier yëpp. boo jàngee ba xam li nga war a xam mépp métier boo songu da ngay dem te boo boo boo kuñ ci defal tey diplôme boobu boo xam ne commune reconnaître na ko chauffeur boobu tey entreprise bu mu dem présenté ay PSM présenté wàlla tey diplôme boobu dañu xam ne kii ne du cuure ci lim ne mm-hmm. te wax dëgg yàlla nag lu waaye bañ lëg bañ lëg nungul ko ay noppam yu gudd mm-hmm. euh, li nga fiy jàngale lu leer nañ ñi la macha allah mm-hmm. côté boobu daal kon ñi ngi koy dagaan meer ak it képp koo xamante nii mën nga fexe ba moomu jot ci ndax mënuñu koo ñaan ci Pape Seck di ko waxi meer déedéet kon képp koo xamante ni am ngay joti euh, waxtaan ci ak maire ngeen defal ñoo ndax li ñu leer nañ xam nañ ne moom bu ci jotee ak mooy taxaw na ci ndax gis nañ muy dimbali ñoo xamante ni lii moo gën a farataw uh-huh. lii moo gën a farataw kon dañ koy sant bu baax nag di ko ñaan di jaajëfal bu baax président Pape Seck uh-huh. di fàttali fréquence rajo bi 99 point 0 ci 88 628 53 53 mooy buumu jokkoo gi képp koo xam ni am na loo xam ne ba nga kaa laaj président Pape Seck wala ba nga koo laaj uh-huh. Serigne Lo wala am na loo xam ne ump la ci lii ñu fi développé nga dugg laaj ko comme ni nga ko bëgg a laajee ñu indi la ci tontu yu leer nañ président Pape kon lan ngay jëm Euh, jërëjëf sëñ Dame euh, li nga wax nii léegi dafa am solo lool mooy maire jàpp ñu ba ñu mën a am màkkaan boo xam ne dañ fay taxul benn centre d'éducation et de renforcement de capacité lu jaadu la ndax dëkk bi ñu nekk nga xam ne mooy ñaareelu dëkk ci Sénégal ci wàllu économie waaye ci wàllu doomu aadama itam mooy dëkk bi jël pee dëkk boo xam ne euh, ay doomu aadama dëkk nañ ko ndax bu nee département bu Mbàkke moo jiitu wàllu population Touba moo tax mm-hmm. bu ñu xoolee itam Touba ni mu bindoo maanaam nit ñi ni ñu dikkee Touba nga xam ne ñi ca taaxee lañ jóge ñiy jóge ca kaw ga dafa tax ñu baree bari ñu ngi fi rawatina ci chauffeur si mais li ñu war a xam dëgg-dëgg xamuñu ko mm-hmm. te loolu boo génnee ci circulation bi rek di nga xam ne dëgg-dëgg ni ñu war a dawalee ci biir dëkk bi des na lu bari te Touba léegi changé na. changé na fii ñu nekk rek muy immobile bi ñu nekk rek ay at yu ñëw ci lii mu nit musu koo xalaat <laughs> tabax ay R plus deux R plus trois quatre di ko luyee mm-hmm. nit musu koo xalaat mm-hmm. da naan tabax kër ba mu rafet mm-hmm. nga able ko kon Touba soppi ko na ci anam yu bëri kon ci wàllu itam xam-xam ci wàllu dawalkat yi fi nekk lu lu yell la lu jaadu la pour mairie bi comme ni nga ko waxee mu jàppale nit waaye itam ministre des transports ak agent national de la sécurité mu ANASER ñoom ñëpp war nañoo dugg seen loxo ci li nga wax mu mën a nekk mm. ñu am benn appartement boo xam ne nii mm. bu mucc ayib lay doon comme ni nga ko waxee mm. ñëpp di ko soxlawoo di fa jaar ñu leen di defal li nga xam ne mooy renforcement de capacité loolu dina tax bu ñu ko defoon un ak ni nga ko waxee di délivrer benn diplôme boo xam ne nii euh, diplôme d'honneur lay doon buy jugee ci mairie bu Touba dina tax ki ko am euh, wax dëgg yàlla ki ko amul dina ko ñee te dina xool yan pexe lay sàkk ngir mën koo am te diplôme boobu mën nañ cee boole sax am neexal ndax mën noo jàngale at natt ñi nga xam ne ñoo fa jàng ñi ci raw ñu def benn cérémonie bu mag boo xam ne kilifa diine yeeg ñëpp la ñuy teew ñu sargal ñi nga xam ne ñii ñoom ñoo ci raw loolu moom suñ daam idée bu pertinent la tey euh, man de maa ngi ñaan mu nekk li xam day taxaw ndax même bu fekkee ne mairie bi def ko itam man de ñaan naa yàlla bonne volonté def ko wala sunu borom may nu kàttan buñ ko defee. ndax boo seetee rek tey ki chauffeur yi Touba yi ñu ci ëpp li ñu xam ci code de la route bëriwul. ndax ñu ci bëri duñ ko jàng. Mm. ndax lan fa ñu koy jàngee lañ koy fayeeku ay néew ju doole la mënuñu ko fay. xale yi nekk ci raxasukaay yi. ñu ci bëri ay xale lañ yoo xam ne ñoo yor seen kër ay waajur. Mm. seen ay waajur dafa duggee ci yeneen dëkk ñëw tuxu si fi mm-hmm. ñu doole xale yooyu ñooy xëy di raxas di jox seen ay yaay dépense mm-hmm. man mën naa laa wax tey ñoo xam ne mm-hmm. wax dëgg yàlla yàlla maanaam gestu na ne tey borom xaalis la te pourtant ay at yu néew ci ginnaaw dañ daan raxas ba dix heures seen waajur bu jigéen wala seen rakk ju jigéen ñëw taxaw ñu làmb seen poos jox ko mu dem marché dem taal togg añ du jeexu xaaj mën nii raxas laa njëkk def te li ma ci dugal mooy dimbali samay samay waajur ndax damay doomi mag kon bari na loolu ay xale yoon xam ne seen ñu ngi ci gaaru taxi ñu bëri wax si gaa yi seeni waajur amuñu doole ñoo leen di dundal xale boobu nag nga xam ne dafa yàlla moo def métier oto ci xolom wala ci xelam muy dem di ko jàngi la muy am ku si néew mu ciy dimbali ay waajuram di ci dajale ngir ëllëg lu mu uti di permis kooku amul lu muy fayee oto école pour mën a am permis de conduire kon xale yooyu rek war naa tax ñu xam ne war nañ leen dimbali man man de am nay jamono yàgg na boo laajee xale yi jaar ngi gis ga wala boo waroon ci taxi bi tey di nga gis xale yoon dina ne Pape Seck mi de ana sàngam daana ñëw ngi gis ga ak ay panneaux yoon ñu plastifié di ko jàngale. Alsane Bey wax na ma ko. am na xale yoon daana lañ fekk ngi gis ga li ma ay at yu yàgg yàgg di ko jàng kon bëgg-bëgg bi mu ngi fi yéene bi mu ngi fi de xam naa ne lu war la lu jaarul euh, sëñ daam ñu dimbale xale yi dëkk bi ndax lu lépp di gën a taaral dëkk bi ndax dëkk bu nekk euh, ku fa nekk boo sañoon ña fa nekk mel melukaan bi nga xam ne noonu la ñu war a mel man ne bu ma sañoon chauffeur Touba benn chauffeur du leen gën a xam code de la benn chauffeur du leen ëpp weer benn chauffeur du leen ëpp ay teggin mais kenn du leen gën a mën oto mais kenn du leen gën a rafet am ndawalin mais ndawalin moom wax dëgg yàlla des na te li ko waral na sëñ daam lii ma wax bokk na ci dëkk bi dafa nekk dëkk boo xam ne dëkkub kaw la bu jaxasoo ki taax bëri ay néew di doole yi fi nekk métier oto la leen yàlla xiir ñi di ko jàng mi amuñu doole yi dem ci oto école yi pour jàng li nga xam ne mooy de la route président Pape kon euh, li séeréer naan ak garangaa teg teg taxul foofu lay génn ak yow ndax euh, dafa am loo xamante ni dama koy dégg Pape Seck du sëwër Pape Seck lii Pape Seck te lii nga wax nag lu war naan du xam nga ñu yàgg suub la wax dëgg yàlla li nga wax ci raxas man mii da raxas laa duggee ci oto. Mm. laa nga jaar ci yu bëree bëri man kenn tuumaalu ma tuuma jooju ndax ci laay xëy ba fi ne nii ab sama taxi mi ngi ci bunt ci suufu rajo bi ma gaare. léegi kon loolu tamit bëgg naa Pape Seck nga euh, loolu mën naa la ko dagaan nga indi ci ak leeral. Mm-hmm. ndax bëri na ñoo xamante ni xëy na ñu ngeen seexal biir dëkk bi ñuy jiite ay quelque garage wala ay ay arrêt ay arrêt mm. waaw léeg-léeg ñu ñëw ci. Euh, garage yoo xam ne xëy na bii Pape Seck ko jiite wala mm. ay bokk na ci fédération Baye Matar wala beneen ni seen biir campagne ñun parce que du chauffeur wala lii laa wala lee te man sama benn maaw boo xam ne sama grand sama lépp ma di ko ziar bu baax muy mm. euh, Serigne euh, Jibi Dieng ñu koy wax Demba Dieng dafa maa xam naa Pape Seck ñu naan bokk benn show bu ñu raxasee mm-hmm. <laughs> waaw dama xam ko ci ñàkk caaxaan lool mm-hmm. mu ne ma depuis ñu nekk bi ga ancien garage ñoo bokkoon ci sept place bi raxas wax ma ñu bari dama gis ancien chauffeur su bare bari ba ci ñu ngi ziar bu baax bàyyi Seexu Jenn mm-hmm. mu xawal ma jaar nga ci loxoom président Idi <laughs> xaadi xamal ne Pape mi sama apprenti loolu léegi loolu bu amee ba pare ma déggaat ñenn ci njaboot bi ñu naan Pape Seck du te nga génnee fi léegi sa permis de conduire wax ko génne sa carte autorisation circulaire kon loolu Pape bi bëgg naa nga am loo ci développé tuuti leeralal ko nit ñi ñi nga xamante dégg Pape Seck te xamuñ ko parce tey jii am na sama benn xarit boo xam ne maa ngi ko yóbbu Mbàkke ci sama oto bi ma waxee ba tudd la nee na man xam naa la am na loo xamante man naa la koo laaj mm-hmm. Pape Seck journaliste la wala chauffeur la wala nangam nangam Serigne mm-hmm. la xam naa boo demee déglu émission bi bu léegi que man maay vice président man mm-hmm. ma daal di man man li ma njëkk def ree mooy man serveur man maanaam ñi wax ñi wax loolu maanaam ban ban ban ban ban ban kii ba maanaam ban ban solo ban solo lañ ko lañ jox loolu Pape Seck chauffeur la ak Pape Seck du chauffeur ban ban solo la am loolu. bëri na ku koy wax loo xam ne ku koy wax ko am ne maa ko gën doon chauffeur maa ko dàq dawal te it mën naa ko tegal lu leer naññ naññ naññ naññ ci taabal ji. ak ku mën a doon. yàlla muy suturaal man moom ma suturaal ma bokk ci métier bi donte nag dund ma ci xam nga ci dara quatre-vingt-dix laa la wax ne ci laa doon raxase sëñ daam am na loo xam ne ku ko deful du ko mën a wax waaw nan loo xam nga ñaagu te te te te man xëy na oto yàlla moom a ko mooñaale gis nga bi may nekk ci daara gi nekk xale oto findi feer ku ma ko dàqoon amul <laughs> oto findi feer oto yow laa <laughs> waaw <laughs> oto findi feer xoolal mille cent quatre suñ ko woon fii ci tableau 40. Mm. bu sama yére musaan tilim mm. dama koy jële kër Saint Blaat indi ko ci kër gi pour ñu fóot ko. Mm. gis nga su ma ñëwee teg ëmb bu yére bi. damay jàll ca garage Dakar mooy ancien garage. Ah, li may wax na mag mun fi fekkoon. xam nga ne lii may wax du ay sos. ñeenti tableau ñoo fa nekkoon tableau yu ñuul am mbind mu weex. tableau Kaffrine. tableau Diourbel. Kaolack ak Dakar. am na ku daan wax maire maar. daana fa jaay caakiri. ak fonde. am na ku ñuy wax maire Fat Ndiaye. daana fa jaay restaurant. ngoon gi gis nga diggante ñaari tëli dafa amoon ay garabu miin yaa ngi dégg diggante naa dafa amoon ñaari garabu miin mais far njaay moom daana fa jaay ruuti ci ngoon gi ruuti boo xam ne day am nen yu ñu baxal ak pooje ginaar <laughs> booba ñoom bàyyi dama ñoo fa nekk ay ñoom bàyyi Moustapha Diop mag ñooñu ñoo fa nekkoon lii ma lay wax yàgg ak kàddu moo fa nekkoon moo tax ñu naan wax kàddu gi boobu xool bi amul miir amul dara gis nga gis nga fi nga xam ne nii mooy mu jëm nekk tableau njaareem amoon na nim gu rëy boobu musaan dem cooti jàkka ja amoon na lu mel ni ak ngi gis amoon na foofu cooti jàkka ja jamono bu may raxas quatre-vingt-dix maa ngi doon ànd ku ñuy wax xaadim comme dem ba ni ko waxee xaadim kebe ndeysaan koocaw xam nga koocaw baara caw koocaw koocaw koocaw xanaa bu ko laajee mooy Pape Seck bi muy raxas boobu ñoo doon raxasandoo mm-hmm. ak ak ak ndem mm-hmm. si bees bas bas jamono boobu mi ngi raxas cette place mm-hmm. xoolal Ibrahima Diagne. ak Pape Kébé Koo Thiaw mhm. ak ak Bas. Mhm. ñoom sept places yi la naan raxas. Mhm. man sept places li ma ci daan may raxas mooy minicar. ba 92 ci laa doon lang ci bàyyi sang bee. ci benn 42 places 0279 booba 42 places yi bëriwuñ fi lii may wax ku jaarul woon ci garage bi. mënu koo xam bàyyi cuun <laughs> Ibrahima cuun. moo yoroon benn oto mbéy bu 42 places. 60 6800. 6800 Aale Mbaye. Aale Mbaye mii nekk ci gaaw su ma di guy gi Aale Mbaye daana ci lank mhm. Saal Mbaye gaañu na mhm. moo yoroon soixante-six cinquante-neuf mhm. Mbool Samb xam nga ko transporteur Mbool daana ci lank soixante-six cinquante-neuf amoon ay rido yu bula oto mbay mbaane mu loon bàyyi cubb yoroon quatre-vingt quarante-quatre Mamour Ndiaye orel ñii tey nekk transporteur daana lank ci quatre-vingt quarante-quatre <laughs> ak deux cent soixante-dix-neuf bi ma nekkoon di daw Touba ak Dakar super yi ku ñuy wax firdo mujj firdo mm-hmm. Mm-hmm. moo ci yoroon benn mm-hmm. bu weex bu dee essai trois ku ñuy wax mbay fay moo ci yoroon bon ba tey mbay maane mu moo ko moomal lii mu lay wax loolu boo boo boobu maa xam naa parce que bu ma xoolee bu ma bu ma xoolee nii sa permis jaag faal jaag faal soritu ñoom El Hadj Fall waaw ñoom ci El Hadj Abdou Khoule jaag faal nga xam ne ay otom ñu bind Serigne Sidi Diène borom xay mbayaar waa kër maam si Issa Diène la nga naa si 0648 la nga naa si 0613 bàyyi mbaalu oto yi njëkk am la nga naa 29 43 ca laa mën a dawale. Saare bu Njaay ko yoroon. 28 77 moom laa njëkk a lang maam Thierno moo ko yoroon. <laughs> ndig ma koy lang maag Abdoulaye Fall. mais yii may wax xanaa la. dëgg la <laughs> dawal. Baye Mor kan yéen a dëkk. Hmm, bu baax. yàlla na yàlla dool ci moom yërmande. xam naa ko Baye Mor laa njëkk a dawalal. Hmm, xam naa kaneen. 97 xam nga lu tax. Hmm. man ji ñuy wax Baskan. moo ko doon dawalal bàyyi morkan boobu lañ koy doog a jox village daaru minam mu yor benn cinq cent quatre essence double corps bu bleu oto boobu baskan am benn orelu cinq cent huit bu ñu créé daaru minam baskan ñu ne ko oto bii ginnaaw yow yaa fi am transport di doomi daaru minam kon yor lañ ko jox baskan yor oto ba ñu jël cinq cent quatre ba jox ma ko ma yore ko baskan yor cinq cent huit ba ab diir doxul mu ñëwaat delloo six cent bi ñëwaat ma joxaat ko otoom mm. maanaam maa ko ko jox euh, talaata àllarba non altine talaata àllarba bàyyi maar ndoom yàlla na yàlla dool ci moom yërmande boole na ak ku ñuy wax Serigne Alaaji Mouhamadou Fallou Mbacke Bousso ñu gën ko xam Serigne Alaaji Tamba ndax li mu nekkoon Tamba mm, Serigne Alaaji Tamba moom tudde naa ko doom mm. demoon naa ba doomi boppam la ma jàppe mm. ba fi nga xam këram doom doom doom laa fa Serigne Alaaji Tamba moom quatre-vingt-dix-sept ba ba 2004 bi muy làqu maa ko yoral am Mercedes 44 11 DK 44 11 F jamono boobu daanaa dawal ku ñuy wax sëñ Cheikh Guédé ndax bu danaan tukki sëñ El Hadj Tamba bu tukkee dafa may abal benn jarbaatam bu ñuy wax sëñ Cheikh Guédé Mercedes cinquante boobu mi ngi doog xew bi dàqoon ci dëkk bi maa ko yoroon 96 33 DKL. loolu sax moo ma mayoon mm, mm, mm. moo bu maa ko musaan jot barab suñ tubaab bi dama daan bokk ci ñaan wàññi xaas bi ci biir bu mag bi mu sàncee xaalis bi maa ko daan transporté wekket bi di ko yóbbu banque CBAO bu ci masse occasion ngir ñu wàññi ko. Mm. sëñ daam ñu naan Pape Seck du sëboo rek nangam nangam. Mm. maa leen dàq dawal fuuf. non fi ma jaar ci oto jawluñu ko fa. li ma def ci oto defuñu ko ci. loolu moom li ma neex ne président weddi tuuma bokku ci. permis baa ngi ni permis bi ah. xoolal ba xam transport bi lan moo ci manqué. waaw moom laa ne moom laa mën a weddi tuuma bokku ci ah, permis transport en commun mi ngi wax dëgg yàlla man mii di wax yoon yi maa ngi doon naan sama transport am na 15 ans am na nangam waaye fii nii moom amuloo ndax yow fii boo xool sa transport en commun ren la am 25 ans. bu sa njëriñ bu sa njëriñ làqoo. sa transport bi am ne mm. ba muy passé sa sama conduite conduite bi ma amee. Mm-hmm. te fa ma doon passé lañ ma annoncé na ma si Nour Bousso Dieng. Mm-hmm. maam dafa da da dafa làqu. fi ne nii sa transport en commun la waxuma la sax. Euh, premier ah. permis mais transport bi ren la am vingt cinq ans. te bu ñu dafa jeexal bu waaw dafa jeexal fi ne bu doon nit la moom bi passé ah, bu doon bu la moom fi nii mën naa yor soxna bu doon jigéen la ab jeeg la moom fi nii. ma ma ma ma nga man moom xëy naa lii na waaye man dama animateur la mel ni ab journaliste la am na loo xam ay mm-hmm. mm-hmm. man du ma journaliste mm-hmm. man ba ñàkk ba nasaraan li ma ci xam bi ma nekk Sëñ Abdou Lahad ci daara ji. Mhm. dafa am ko fa nekkoon ku naan wax jóob bu xees. Mhm. moo ma daan jàngal cours du soir. Mhm. kër bàyyi mbéykat bi gii ci 28 francs daan jàng alxuraan. su ma xëyee jàng bu bëccëgee ma wàcc dem ko Sëñ Abdou Lahad bu bu bu bu ma añee ba noppi ñëwaat ba gannaaw tàkkusaan ma tari. dem su ma demee six heures ma dem ñu ja mu jox ma benn cours du soir français li ma ko ci xamu ko si néew Sëñ Abdou laa ko xam bii Sëñ Abdou loolu daa barke xoolal waaw mu nga kon macha allah buntu bopp leer na ñi xëy na loolu moom comme que yàlla émission émission jotaayu transport la chauffeur sànq koy dégg président euh, ñu ngi koy dégg président groupement yi ñu ngi koy dégg président fédération yi koy dégg léegi loolu moom mën naan euh, weddi du xawma lan dindi tuuma la kon loolu moom leer na naññ léegi président Pape Seck am leneen loo xam ne aussi bëgg naa la koo laaj aussi nga développé ko fii mu leer naa naññ euh, lan mooy xam ne nii mooy COJER. Mm. COJER bëgg naa nga wax ma luy COJER. ñiy déglu xam dëgg-dëgg concert mooy lañ parce que yaa ngi ko woote vingt 24 bii di ñëw donte xam naa ne fi ñu ngi xaw a sori. waaye nag fii moom suñu plateau la ñoo ko moom. Mm-hmm. dañ si bëgg a def jàll lépp loo xam ne bëgg nañu koo jàllale concert laa bëgg nga leeral ma dëgg-dëgg concert mooy lan ak lan mooy woote waral woote bi. jërëjëf sëñ Dame xam nga man ci wàllu sécuritaire maa ngi ko tàmbali 2010 ci mm-hmm. association des jeunes chauffeurs gëm sa réew. Mm-hmm. mu nekkoon association de retrouvailles. apprentis yi nga xam ne ñoom laa bokkaloon génération. bi ma demee ba am permis quatre-vingt-seize continuer di lang ba quatre-vingt-dix-sept ma bàyyi fa auto auto transport yi dem di dawal bàyyi morkan euh, yàlla dafa dogal ñun ñëpp ñu tasaaroo bi ma demee ba 2009 ma ñëwaat ancien garage benn jour ma daj fa ak ku ñuy wax Xaarim Njaay ak daaru bi ñu waxtaanee ci gëj gisante gee ku ci nekk lu bëree bëri ci say situation changé hmm. ñu ne nag il faut que ñu taxal benn kuréel boo xam ne retrouvailles lay doon hmm. ci lañ ko taxawale dem ci préfet bi fi nekkoon bu Kunta Gueye Mbàkke mu jox na conseil def leen ko association mm-hmm. Baye Pape Mbaye mi ci Madiana président fédération urbaine moo ne tuddee leen ko association des jeunes chauffeurs gëm sa réew mm-hmm. am na récépissé zéro vingt zéro vingt cinq mm-hmm. ñi ko mag récépissé fii ci transport yaakaar naa bu fekkee am na bëri Touba gi ñi ma njëkk am récépissé transport zéro vingt cinq suñu xoolee numéro récépissé yi du ma ne kenn maguma fi mais yaakaar naa ne du bari numéro bi rek ci bi ñu defee loolu nag 2010 ñu def benn campagne de sensibilisation bu mag. ci mm-hmm. màggal gi. dem Tiwaawan def ko fa wax dëgg yàlla ci anam boo xam ne euh, xalif ba dafa kontaan jamono sëñ Mansour la. boobu sëñ Abdou Aziz Al Amin mooy porte parole bi mu accueillir ñu boole ñu doomam ñu taxaw ñu fa taxaw goo xam ne màggal gàmm googu lañ fa def réy na boo xam ne euh, vraiment du ma ko fàtte benn yoon. ci noonu nag la ñu continuer secteur routier ba yàlla dogal. Euh, at yii wees mën na nag léegi du ñuy def rek euh, chaque année ñu dem ci point yi di def sensibilisation mais mais dañuy fexe ba euh, di daje di toog ci benn place di waxtaan ci wàllu accident yi ak naka lañ ko war a éviter ak it ñi nga xam ne ñi ñoo séq secteur transport naka la ñuy mën a def ba dugal ci seen bopp bu màggal Tuubaa jotatee ñu dem sur la route taxaw pour sensibiliser ñi nga xam ne ñooy chauffeur parce que sëñ daam loolu li mu mën a wax ak chauffeur bi mu dégg ko même ministre des transports mënu koo wax ak ñi nga xam ne sëñ daam loolu mi ngay jaxasoo ñoom kon COSER li sabab ñu créé ko mooy jublu ci ñi nga xam ne ay acteurs transport lañ ak mécaniciens yi def dépendance gratuite même ba ci passagers yi ñun ñëpp ñu def benn bloc bu événement jub seetee ñu daje toog waxtaan sensibiliser ñi nga xam ne ñooy chauffeur yi sëñ Dame Lo yaakaar naa ne mosuloo gis sëñ Cheikh Bass bien avant ñuy organiser wu comme nii muy def ay discours di ko jëmale ci wàllu secteur mais gis nga année yi ñu ko commencé yëpp chaque année bu ñu waxtaanee ba noppi dañuy dem ci moom bu def discours bu am solo jëmale ko ci transporteurs ak chauffeurs yi ba pare dalal ñu defal ñu ay bernde noonu ñu fexee nag ba ku ci mel ni sëñ Cheikh Bass intéressé wu ci secteur di ci participer di ci contribuer noonu la ñu fexee ba acteur transporteur yi acteur transport yi muy transporteur yi muy chauffeur yi dawal ko sareet yi même ba ci ñuy dawal jakarta ñu ngi ci biir COSER mooy Moustapha Thiam ñoom ñoom El Hadji Thiam Sarr kon événements religieux au Sénégal noonu lañ ko tuddee woon ngir euh, maanaam événement réalisé yëpp ñu ci taxaw mm-hmm. waaye bi ñu demee ba perte ku mel ni suñu xarit ba Moussa Soumourou amuñu itam benn jàppale état mm-hmm. ak surtout que mu diisee nga xam ne man daanaa dem ba ah xam naa sëriñ bi daal mooy sëriñ bi ndax man màggal Tuubaa li may dikkal di jóge fu ne ak ni may bàyyee sama bopp ci toppatoo lu jëm sama bopp ci màgg lépp ma jëm jëmale ko ci sécurité routière lu ma am sax ma def ko ci dëgg-dëgg sëriñ bi mooy sëriñ bi ci la ñu ne nag wax dëgg yàlla li diis na diisaay boo xam ne ëpp na te amuñu ci itam benn jàppale bu jóge fenn kon nañ ko def rek léegi comité d'organisation pour la sécuritaire du grand Magal Touba ndax sëriñ bi moom ak lu mën a xew ci sécuritaire moom bisam yëbalawu ma ko benn bis mais su suñu yéene suñu mébét moo doon événement yi nekk ci réew mi yëpp ñun acteurs transport yi ñun waa COSER mm. ñuy wàcc sur le terrain mm. di def sensibilisation jëme ko ci chauffeur yi mm. te loolu mooy li war a mën a nekk mm-hmm. même ANASER xëy na Cheikh Omar Gueye mi ko yoon dafa ñàkkoon a xam ni mu waroon a yore ANASER mais ñun ñi nga xam ne créé nañ kuréel bu mel ne COJER di taxaw ci événement réalisé boo xoolee sax Moussa Soumourou am na benn vidéo boo xam ne gàmmu Tiwaawan deux mille deux mille deux mille vingt deux mm-hmm. la ci la ci la ci la ko def donc euh, liñ ci jublu woon mooy fexe daal ba acteurs yi di taxaw di def sensibilisation sauf aussi transporteurs yi ñëpp intéressé wu ci waa certificat alhamdulilah rabil la nag duñ ne am nañ ko cent pour cent mais fi ñu toll ñu ngi ci quatre vingt pour cent yoo xam ne li ñu bëggoon am nañ ko te mooy bu événement yi jub seetee chauffeur seeg transporteur yeeg ñi dawal jakarta mécanicien yi ñëpp dañuy wax ci wàllu secteur car ñëpp dañ ciy wax kon loolu rek mooy sama ba koseer yàlla dogal itam am na journée de concertation comme ñu koy def adiwees mm-hmm. ñu ngi koy préparé xëy na nag le 24 bi ñu ko jàppoon dinañ ko puus tuuti ndax le 24 dafay tombe ak euh, cérémonie màggal Daaru Xudoos li taxoon ñu teel ko jàpp itam mooy comme que dañoo waroon dem ci autorité ak yëpp teel leen bind trois mois avant événement bi moo tax mënuñu woon a xam màggal Daaru Xudoos kañ lay am mais bi ñu demee nag ba ba gis ne euh, mi ngi am le 24 aussi ñu waxtaan si ak monsieur le maire Abdoulahat Ka mu ne nañ ko puus parce que journée bi journée bi intéressant la te ñoom bëgg nañ ci feeñ waaw nañ nañ nañ ko pousse ba beneen jour mm-hmm. même ministre des transports wax dëgg yàlla jox na ko yitte bu mag mm-hmm. te li mu wax mooy yéeneem mm-hmm. mooy teew ci bis bi ak it euh, maanaam euh, chef de service yi mu am yëpp ñu ñëw ci bis bi ñu ànd ak ñun bis bi ñu waxtaanee lépp li nga xam ne jëm na ci sécurité ru màggal accident yi ak paas yi nga xam ne dañ koy yokk yooyu yëpp ñu waxtaanee ko ba nga xam ne màggal gi ñu jëm euh, zéro accident moom lu jafe la événement màggal Touba waaye ñu ngi ñaan yàlla mu yem ci dégâts matériel dégâts matériel daal ci la ñuy ñaan yàlla mu yem ci mais ñu ngi ñaan daal màggal gi ñu dëg moom ñu def le maximum ci wàllu sensibilisation ba nga xam ne safar si dinañ gën a bàyyi xel tali bi gën a bàyyi xel événement bi tey événement la boo xam ne dafay gën a jafe yi wees ndax dafay nekk ci biir nawet te dawal ci nawet dafa jafe comme ni dawal guddi gën a jafe dawal bëccëg Euh, vraiment sëñ daam événement bi daal ñu ngi koy waaj muy événement boo xam ne nag du suñu bos bee beeku moom ñu ñëpp ñoo ko bokk comme ni ma la ko waxee léegi sareete yi ñu ngi ci biir ñi dawal jakarta gros porteur urbain interurbain taxi passager yi ñëpp ñoo ko seq parce que sécuritaire nekkul rek pour chauffeur bi wala pour apprenti bi wala pour sareete bi wala kii dawal moto sécuritaire ñëpp ko bokk lépp luy rouler rek boo ko seetee li ci ñëw ci ay doomu aadama juróom million jàpp juróom benn million te at mu nekk mu yokk te ñëpp fu waay mën di jógee ci àdduna fu mu mën di doon boo jaaree ci géej gi wala nga jaar ci euh, jaww ji itam yaa ngi mujj ci oto pour ñëw Touba. ñëw Touba ndax Touba amul port amul aéroport. kon ñi nga xam ne ñooy transporter euh, nit ñooñ di leen indi. war nañ leen a fàttali war nañ leen ñaax waaye war nañoo waxtaan ak ñoom bu baax a baax a baax ba ñu xam ne événement la boo xam ne comme ni ko sëñ Basiir waxe woon moom sëñ Abdou Khadre yàlla ñu ko yàlla fayal dafay wax ne du événement bu ñuy profité pour am ci am koom mm-hmm. waaye événement la bu ñuy profité ngir am ci payug sëriñ bi te payug sëriñ bi xam nga ne moom da lay yor fii mm-hmm. yor la fa ñu jëm yor la fa ñu jëm jërëjëf président Pape Seck macha allah li nga développé fi am na solo lool waaye nag euh, nii la ñëw toog ci plateau bi leeral ko comme nii rek moom la waa mënuñu toog dina leeralal comme que am nga jot gi ñëw leeral ko ni am na solo lool xam naa ne fi ne nii émission bi ñu ngi ci cëppaandaw bi fi ne nii heure bi maanaam mel na ma jeex na bu yàgg yàgg waaye président Pape Seck day koo xam ne kenn la su ñun ah, ci wàllum transport bi ñu seq ci mujj ci suñu kilifa macha allah bàyyi ñu si xel lool lool lool lool ba nga xam ne jël leen day jël responsabilité yu bare bari féete lañu ko kon mënuñu ñu ne lu dul delloo ko wàcc waayam ndax ànd bi day ànd boo xamante ni ànd bu neex la de ànd bu dëggu mi ngi nii toog léeg man sama bopp daf naan ma nii la ma ne ko du nii nee la bàyyi ci li ñëw fekk ñu si kon fekk suñu ci luñ ne te si xam moom moo daf ñu ëpp ay xam ëpp ñu ay at mais ki mat kilifa gi mat kilifa day tax buñ bësee bu ne nii la ñu ne ko nee la mu bàyyi fekk suñu si su ko defee nag te du ñu fekk di ñu seetaan seetaanu lii ma leen doon tere yàlla euh, su ngeen dem ba gis ba ba gis la taxoon ma la koy tere mm. day tune àndaat ak yow di la dévier di la wane lii nga nekk bu demee ba réussir mu ne pourtant sa xalaat rafetoon na te fekk boo demee sax lim la accompagner orienté la moo tax mu ma ne kon loolu mooy kilifa goo xam ne kilifa gu mat sëkk la dañuy ñaan sunu borom moom mi nga xam ne moo am te mënta ci barkeb sëriñ bii ni ak li nga xam ne sëriñ bi ñaanu na ko ci mat lépp loo xamante ni gis nga ko ci xasida yi da ñaan ñaan gi ñaan gi sëriñ bi loolu dafa ñaan sunu borom ba may ko ko mu koy firnde rek bind ko ci xasida yi nga xam day mel ne ab leetar boo xamante ni dañ bind na maag Pape Seck toogoon nañ fi def émission hmm. fekk def nañ émission ba pare loolu moom mooy dëgg-dëgg yi sëriñ bi maanaam day doon loo hmm. na mu tourné na bind ko wàcc ka fi ngir mu doon loo xamante day ndamal murid ñi di ndamal jullit ñi ndax lu mu am na fu mu naan yees li mun naa la dal man ni man xaaru ma ko bépp wàll yi mm. loolu koy wax dafa am ba pare mm. mosul ko bind nag bi mm. kon nga xam kooku mooy dëgg dëgg sëriñ bi ñu am lool nag lool lool ci suñu émission tey bi ci dalal suñu kilifa goo xam ne macha allah woyof lool baax lool kon euh, ñi yéen auditeurs yeeg auditrices yi nga xam ne yéen a ñu doon déglu ak yéen chauffeur yeeg euh, taximan yi ak euh, président regroupement yi président garage yi nga xam ne président Pape Seck lañ doon daloon leer na daal fépp foo ñu gis lu ñu yëngu ci wàllum oto yeeg kii yi ci ndigalam lañ kon président Pape nga def sa tàggatoo boo xam ne fi mi ngi ci jëppandaw bi waaw jërëjëf xanaa mooy santaat suñu fàllu galas rek ci lii mu taxawal ci dëkk bu tedd bi di Touba ñaan laal ko suñu borom gën koo dimbali gën koo taxaw gën koo kàttanal sàmm ko aar ko ba moo xam fan la yéenee egg ci wàllu communication waaye sunu borom defal ko ci lu kawe njortam ak ni ko seqal ñëpp yow it ñu ngi lay sant bu baax seen daam di la gërëm sunu sëriñ nga sunu conseiller nga sunu imaam nga euh, wax dëgg yàlla amuñu sa fay yàlla rek moo am sa fay yàlla na la yàlla fay xam nañu bu baax nag fi ñu féete xam nañu itam fi nga ñu teg xam nañ ko xam nañ ko bu baax a baax baax kon dañ lay bàyyee rek borom dëkk bi Euh, bu ko defee rek euh, ñu sant itam ñu ñu doon teewlu ñëpp di wax itam chauffeur yi nañu intéressé wu ci émission bii ndax waxtu wi nga koy amal waxtu loo xoo woo xam ne day fekk ñi ëpp ci chauffeur si ñu wàcc te buñ ci intéressé woo ba nga xam ne intéressé wu nañ ci nag di leen ko soppi sax ab centre de renforcement de capacité dinaa ñëw fii di indi tableau yi di indi bagage yi di leen ko woon ci mm-hmm. écran bi ñuy toog fa ñu nekk mm-hmm. di ko man di gis mm-hmm. di leen defal lu baree bare loo xam ne dañ ko def ci kere ak tablo mm-hmm. te muy lépp itam di njariñ. Mm-hmm. li ma bëgg a wax daal muy bu ñu intéressé ci émission bi. bàyyi ko xel ñoom mm-hmm. Sewil ba ma xam ne intéressé wu nañ ci. jarul sax ñu ubbi ab centre. dinañ leen jàppale fii. ba lu ñu bëgg xam ci code de la route ñu xam ko. luñ ci bëgg gis ñu gis ko insha allahu taala. waaye nag nañ ci intéressé wu rek ndax émission bi daal suñu daam euh, maa ngi bëgg daal chauffeur si nañ ko gën a bàyyi xel. lépp lu mu laaj nag ci wàllu communication bi ngir safar si gën a xam émission bi ak waxtu bi na ko def te lii euh, bokk na ci liy tax ndax vidéo yi bu ñu ko partagé ci groupe WhatsApp bi mu dem partout au Sénégal mm-hmm. euh, di di di di partagé lien bi euh, dinañ ko bàyyi xel mm-hmm. su ma yëgee daal ne ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax mm-hmm. a ah, am na yu ñu denc yoo xam ne daal dinañ dinañ leen ko baaxee fii yoo xam ne daal sant na jaw président papa kon jërëjëf am na solo fii moom suñ kër la ñun ñëpp président Pape ah. tëju luñ ñu fi benn bunt ah, loolu nga wax noonu sëwa si nañ la si jàppale ci di bàyyi xel euh, rajo bi asalaami 99 ah. point 0 mm-hmm. ndax ki nga moom suñ doon doom doomu dëkk bi la mm-hmm. te dara ñëru ko lu dul yaatal ñu koy sant bu baax suñu Fallou Gala si la xëy na sant bi rek moo ko koo gis waaye ñoo xam ne ko gisul waaye waaw waaw yow xam naa soo moom moom moom moom rajo waaye moom rajo bi rek maa leen moom man maay kilifa moom moom rajo man maa leen kon ñu ngi leen di sant di leen di gërëm daa mel ne fi ni ñu ngi ci cappaandal kon ñu leen di jox uh, dig daje di leen jox rendez-vous àllarba ji di ñëw vingt et une heure vingt deux heures fii ci Assalaamy FM ñu ngi sant bu baax di sant sëriñ Abibou Thiam suñu technicien bu mucc ay bi macha allah mm-hmm. di nga ñaan suñu fu ñu jëm te àggale di ndaw loo xam ne macha allah tegu na ci yoon di ziare bu baax sëriñ Aale Mangaan mi nga xam ne moom lañ daan seqal jotaay bi mu tam dem boori Jolof ñu naan suñu borom aar sàmm la teg la ci yoon siraatu mustaqim màggal gi ñu ñaan suñu borom comme ni ko président Pape Seck waxee bu demee ba mënta ñàkk am yàlla loo xam ne dégâts matériels rek lay doon ndax loolu ndam la ñun nag ay taalibe lañ ay dongal sax ñoo ñaan suñu borom yàlla bu dee ba mënut a ñàkk ni ko président Pape Seck waxee na dem ci na yem ci dégâts matériels kon ñu ngi tàllal loxo ñëpp képp ko xamante ne bokk nga ci fédération yi wala ngay sëfoor nag te am émission bi intéressé la toog ci euh, plateau bi jàllale si sa xalaat intéressé la bu ñu jokkoo incha allah danañ ci développé lu bare bare président Pape nag moom disponible na à tout côté. Mhm. émission bi nii damaa dem ba mu neex ma man maa jékki-jékki na ko jour tel dama lay dama lay invité. Mhm. ko asalaamaaleykum wa yaa